Tadio ñu ngi char bro ñu ngi char di wax welcome to Xoureul Talk j'espère que yaa ngi bu fekkee on nga rek gaan ñu daf ñu signe bro bu fekkee yaa fi. salaam salaam wa rahmatulah. am ah. yeah maa lay am bro. yes sir. yeah char bro j'espère que yaa ngi si jàmm. waaw charaat bu bu wér gën leen

waaw ba rab bi dafa bari xaalis ba nga get busy nii gaan <laughs> amin amin waaye amin loolu da lañ bëgg de loolu da lañ bëgg bëri la ci loolu moo tax daw xam nga suba ngoon daal xam nga parce que album moom boo ko génnee il faut tamit nga topp ko quoi voilà ci yooyu introduce like ni may def gars yi xam nga di la introduce ci Xur Real Talk di wax welcome xam nga fii di la dalal tamit xam nga di la wax das your house fi benn benn room la benn club la bu ma créé boo xam te ne nii xam nga ma gars yi dañ fiy nekk di di di di sukkandiku ci hip hop you know di invité gars yi di waxtaan ak ñoom comprendre expliqué gën a élargir connaissance bi gën a élargir xam-xam bi gën a élargir tu vois industrie bi tu vois loolu mooy suñu objectif et ça me fait vraiment plaisir tey recevoir benn benn benn clever mind laay wax ah benn clever mind bu mel ni yow you know what boo xam te ne yàgg naa la suivre it's been comprendre expliqué ma gis euh, pas yi ngay def si hip hop bi jéego yi ngi ciy teg tu affaire yu dóob yi ngi ciy yi ngi ciy yi ngi ciy yi ngi ciy play you know am seen xam nga xam nga euh, benn instant nii euh, da nga bokk si ñun quoi xam nga dañ la jox cër bu rëy tu vois si respecter sa job comprendre expliqué respecter the way you hip hop xam nga façon bi nga koy indiwee ci game bi tu vois you from Thiès man mën naa wax nekk bokk nga si je peux dire même le le le le grand talent bi nga xamante ne ni instant bi moom mooy dëggal boppam xam nga en à travers Thiès ba pare tas ko mu ñëw ba Dakar tu vois ba am impact biir Dakar tu vois et ça c' extraordinaire xam nga affaire la boo xamante ne nii bëggoon naa ko souligner tamit euh, di la wax tamit nekk comme quoi que gis nañ tamit sa euh, maanaam sa quiétude quoi maanaam ni nga nekkee ci hip hop bi am sa quiétude ñëw indi connaissance tu vois indi indi benn engagement patriotique tu vois indi benn way of life boo xam ne ni booy dañ ci war a jël comme référence booy dañ ci war a sukkandiku tu vois s'il te plaît bu la neexee mën nga mit sa mic ba heure bu nga waree wax su ko defee bruit bi ci suuf du du kii quoi dégg nga yeah yeah so mu nekk mu nekk benn yeah job boo xam te ne nii mu nekk benn job boo xam ne nii gis nañ yaa ngi koy yaa ngi koy mën a ci scène bi tu Euh, ñu am ci approche lu tax mu am ci approche parce que c'est intéressant xam nga gis nañ ne ko comme quoi que sa sa hip hop c'est intéressant sa xam nga sa sa sa sa façon de dérouler les choses c'est tu es tu es beau à regarder tu écouter aussi tu vois euh, bon à écouter aussi xam nga dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy à chaque fois man damay jàngat ci sa ci sa perfection quoi si façon bi nga bi nga indi hip hop façon bi nga koy bi nga koy bi nga koy speeché tu vois ma gis tamit benn affaire ma ma seetlu benn affaire tamit boo xam te ne nii bu bu vrai la quoi boo xam te ne nii mooy tu tu vraiment hip hop quoi tu vraiment hip hop sa sa sa façon xalaat bi sax après noo ni ñu koy wëlbatee di ko di ko transférer pour mu fexe ba nekk hip hop sax man loolu dama koy gis quoi si say say jëf si say façon waxin wala si say démarche lépp maa ngi koy fil quoi soo di la dalal di la wax welcome to Xouréel Talk di la bàyyi nga nuyoo gars yi après ñu xam nga ñu dawal jaajëf waay. Yeah, merci ci kàddu euh, yi nga yi nga yëg sama jëmm voilà ça fait plaisir quoi parce que yow bu dul dara tamit euh, voilà euh, connaisseur nga boroom xam-xam nga ci ci sunu ci bi et puis ku ku gars jox cër nga quoi donc ça fait plaisir mooy kàddu yi mel ni jóge ci yow waaw di kontaan bu baax di di nuyu encore une fois gars di leen wax ni kontaan naa et puis bu baax a baax a baax a baax invitation bi parce que euh, bon man maa ngi sax soog a am ni club sax club taxaw donc xaw ma a affaire nu mu demee mais quand même maa ngi dégg ay retour gars yi yéen a ngi def ay ay am solo ci ci ruum yi et tout rafetlu encore une fois di wax ne waaw émission laa kon mën nañ tàmbali mën émission bi et puis voilà. yaa ngi waaw maa ngi lay ma maa ngi dégg dégg naa bu baax dégg naa bu baax dégg naa bu baax jaajëf bro jaajëf jaajëf mais bro um, man maa ngi la ah. découvrir um, flow up quoi xam nga flow up laa la découvrir nga commencé tawal si flow up bi di dawal si flow up bi xam nga foog nga intéressant quoi si biir si si plein si plein compétition bi quoi tu vois après. moo jékki-jékki rek nga nga nekk benn gagnant surprise pour man nii quoi tu vois ba nga gagné xam nga ba nga gagné flow ba nga gagné flow ëpp xam nga après booy mu nekk benn succès bu dóob mu nekk benn affaire bu ma marqué quoi jour boobu booy xam nga teeru la DK ba Thiès quoi man man boobu hmm. boobu laa yee boobu laa lay door a boobu laa lay boobu laa lay door a découvrir très sincèrement comprendre xam nga mais bro affaire boobu hmm. noonu gain daf gisoo ne man impact la boo xam ne tax na ñu bari xam la si game bi. bien sûr. mën naa ne sax à mën naa ne sax à quatre vingt wala quatre vingt dix pour cent. xam nga moo tax euh, loolu dafa benn pàcc bu am solo ci sama carrière. mën naa ne foofu sax la mbir yëpp tàmbale bien vrai que voilà maa ngi avant loolu xam nga doon doon ci def ay jéego lu ci mel ni maa ngi woon ci groupe lu ci mel ni Sinan Soldiers ak Big Daddy X ak Rocket. yeah Big Daddy X 2011 waaw. Um, tegal sees aussi nekk naa ci et tout def nañu def tamit ay pas mal de scène ak ay pas mal de. Mm-hmm. son et donc ñu ngi doon commencé di am tout sama nànk-nànk et mm-hmm. mais vraiment flow up comme li nga wax rek daanaka. foofu la foofu la mbir yi déclenché woo. Mhm. parce que sooxe ci gagné ci trois millions ak ay promo ak ay yooyu noonu c'est pas du loo ni du tuuti quoi. Mhm. donc na jàppale artiste pour pour mu pour mu mhm. trois millions la woon jamono jooju. trois millions. waaw donc euh, mais gëm naa ne sax affaire yi mooy sax ëpp solo xaalis bi mooy tour bi nga ci am crédibilité bi nga ci am parce que quoi qu'on puisse dire que loo ëpp boo ko gagné da ngay am crédibilité ci gain bi loolu c'est c'est important ngay gagné respect bi da ngay gagné expérience yu bëri parce tamit da lay permettre ngay jouer ci ay yu mag mag a mag sax scène yoo xamante ni voilà peut-être ñu bëri jiitu nañ la sax ci game amuñ scène yooyu noonu donc chance boobu chance yooyu yëpp mi ngi ci chance aussi a voyages chance ay affaires yu bëri yoo xamante ni voilà day def da lay day def da lay def un professionnel a moom xam looy seen yu mag déjà comprendre par le biais de la la ñëkk a gagné ay ay millions encaissé ni fël rek waaw waaw waaw mhm. moom def professionnel quoi parce que même avant même avant sax Euh, flow up le fait que yow nga ciy joué ci scène yi muy demi-finale yi ak finale yi xam nga yooyu déjà ay scènes yu mag la da ngay préparé sa bopp da ngay préparé mhm. euh, mhm. sa bopp ci ci ay répétition da ngay préparé ci naka ngay joué scène captivé public bi xam nga naka nga téye micro xam nga naka ngay mhm. naka nga benn bu essentiel muy live xam nga yu bëri waaw am nañ habitude live mën naa ne flow ko jëlee donc yooyu noonu yëpp da ci da ci voilà, ça m'a permis de faire comme ça. Et, euh, je serai toujours très reconnaissant am nga ci flow et tout. yow bi ngay bi ngay bi ngay ñëw flow up boobu ban game moo amoon Thiès boobu lan nga bàyyi Thiès comme hip may ñëw flow up bon instant boobu mi ngi doon kii ah mi ngi doon euh, mi ngi doon baax affaire yaa ngi doon defaru parce que boo xoolee tamit euh, euh, déjà avocat jël flow up avant moi. en 2000 2014 ah. en 2014. donc euh, voilà période boobu tamit ñun tamit ñu ngi ci woon comme ni ma la ko waxee man ay big daddy sax yooyu noonu instant boobu on était en groupe xam nga di teewal di def ay affaires yu nice di jouer ay scènes yu jouer ay scènes xam nga donc voilà quoi instant affaire yi ngi doon développé mi ngi mi ngi doon jàpp quoi ça prenait forme et donc euh, voilà hip hop bi mi ngi woon mi ngi woon mi ngi woon ci loxo yu wóor quoi vrai que c'était mhm. nos débuts amaguñu woon fépp et tout mais quand même gars yi fekk suñuy période ak xamoon nañ ne gars yi voilà ñii déclare nañ hip hop Thiès quoi depuis ay sikki saaka ay sukuraat ak yooyu noonu amoon na benn écart yaatu fa amoon boo xamante ni voilà ñun après bi ñu ñëwee euh, Sina Soldiers ay tegal seen et tout voilà yëkkati waat nañ niveau bi ba ñu commencé waat ñu xam ñu xam ñuy ñëw Dakar di jouer xam nga gars yi di d' xam yu ñu boole ci liste yi ci maire seen ci maire groupe yeeg yooyu noonu mooy yooyu noonu yëpp voilà ñu ngi doon ñu ko mm. doon xendal quoi man mën naa ne dama ñëwoon euh, flow bi ma ñëwoon euh, mm. woon ñëw dëggal li dëggal si doon def euh, moom Thiès moom yaa yaa ngeen rajaxe foofu quoi yaa ngeen tasaare side boobu moom gayen mm, yaa ngeen tasaare côté boobu yeah yeah yeah après nga commencé yow léegi loolu dafa la permettre dafa nekk benn fond boo xam ne dafa la permettre nga commencé di def te tes exploits maanaam di commencé def tes vidéos xam nga expliqué euh, commencé di di def tes projets loolu daf la aidé aidé na la pour à traversa ça xaalis boobu noonu. parce que flow up parce que flow bi da nga gagné flow up bi rek après sa production yi commencé ñëw sur le terrain quoi. en quelque sorte oui da commencé na ay mbir bien vrai que moi ok euh, ok ok ok ok that's what's up xam naa bu baax yeah. yeah comprendre donc mm, euh, mm. voilà loolu lu ñu fekk si la rek quoi lu nekk suñu yoon la fekk si ñu mm-hmm. et puis gën a gën a gën mbir yi quoi mais parce que mais côté finance et tout mën nañu wax ni on li ñu def sax période boobu noonu mën nañu daf koy daf koy double wala mu tripler ko mm-hmm. ci ci li ñu jotoon enquête jituwaaka mm-hmm. nañ ko wala parce que production du du loolu kese quoi du du trois millions moo koy tax cinq millions boo dajalee tout ce qui est enregistrement tout qui est mix master tout qui est vidéo clip xam nga mhm. nga war ci am benn ñaar ñett nga war ci am minimum cinq pour un pour un album xam nga en plus des xam nga concerts des tournées et tout voilà mhm. euh, somme bu important la boo xamante ni dina xaw a dina xaw a allégé tuuti archi quoi mais mhm. ok ok that's what's up that's what's up après si après si nga commencé vite fait rek nga commencé léegi di di feeñ ci scène bi quoi di maanaam di feeñ ci game bi carrément et di di def sa production nga commencé ñëw par exemple sa premier vidéo clip nga ñëw may ñëw Razia xam nga ñëw indi sa premier vidéo comprendre expliqué dawal foofu indi style africanité bi indi beneen jàpp quoi comprendre expliqué and uh, nu mu fa demee noonu la moo tax nga ñëwoon est-ce que lii est-ce que ce n'était pas risqué si game hip hop bi quoi nga ñëw fële ak Razia ak ak clip façon clip bi nga indi quoi si Razia. parce que gars yi tàmm ñu gis genre affaire yooyu maanaam nga ñëw ci sa coming out rek def genre fël yooyu noonu quoi. Euh, waaw daf ko pour man daf ko laajoon nga ah. jàng dafa période boobu sax surtout loolu lañ déjà Razia dafa am boppam comme ni ko comme ni ko ñëpp xamee hmm. euh, ci côté ay sonorité et tout donc euh, naturellement vidéo bi tamit da doon da doon imposé wu quoi ci côté boobu xam ne ci direction boobu noonu et puis wane ni techniquement mhm. les Africains euh, Sénégalais surtout et techniquement nous sommes bien mhm. voilà flow nous sommes bien en écriture et tout donc voilà yooyu noonu yëpp ok ok ok ok ok ok waaw style style representing bi nga bëggoon wane à la sénégalaise bi mais ba pare yor say baar quoi comprendre hip hop parlant quoi da nga euh, def brassage boobu noonu quoi brassage culturel bi ak euh, tu Yeah, c'était, c'était bien fait, hein, c'était bien fait. C'était, c'était vraiment hip-hop, quoi. Vraiment, t'as bien, t'as bien Parce que da nga def benn sound boo xam ne c'est très hip-hop. Tu ce que je dire ba pare nga teg ko si benn si benn euh, si benn contenu boo xam te ne nii c'est pas rare na gars di ko gis quoi. Tu vois da nga décomplexé affaire yu bëri quoi c'est extraordinaire. c'était c'était vraiment nice quoi. léegi bro après nga jékki-jékki nga commencé fële def ay ay yoo xam ne da ngay commencé ñëw ci ego trip quoi. Tu xam nga ay yëngal ay yëngal xam nga lu expliqué dreadlock xam nga chin fu comprendre expliqué jàngoroy kajoor quoi boo xoolee fan yooyu yëpp xam nga da nga ñëw pour marquer benn pas effectivement yee daf daf koy soxla daf koy laaj parce que hip hop tamit loolu la hip tamit bàkk sa bopp la ñëw teg sa lënd ñëw wane ni euh, gars yi ñuy tooy yëpp yàlla gën a tàng xam nga bëgg na sóor am ainsi de suite ainsi de suite tamit ci hip hop la donc c'est tout à fait normal et puis voilà ego trip ego trip voilà euh, yoon la quoi man pour man artiste bu mu mënti doon comme mbër rek gis nga musique ak ak euh, lutte wala boxe des fois day am yenn day am day am yenn niroo quoi ci yu bëri xam nga ci manière bi ñuy doxalee xam nga ainsi de suite tu donc euh, c'est tout à fait normal tamit en tant que artiste boo ñëwee surtout sax buñ la buñ la jotagul xam et day nekk yoon nga ñëw teg seen lënd fëgg sa ni leen waaw yéen ñi ñëpp ñu koy coow man man man. ok am benn benn en plus ego trip tamit benn moyen pour nga vraiment nga exprimer sa. yaa nga wane sa si terrain bi waaye. technique sa flow. Mm-hmm. yeah yeah du laaj loolu peut être day laaj xam nga bind ay affaire bi simple affaire bi accessible ñu déglu xam ne lii ngay wax. mais ego trip dafay laaj yow nañ ma que nga indi loo nga yeah mais mais la ma tax mais la ma tax bi nga li ma tax bi nga ñëwee par exemple ah, bu ñu gisee sa sound ego trip bi nice ah nice ñu gis ne que mën nga kiikee xam nga waaye boy bi xam nga faya surtout ment bi nga ñëwee ci sin fou nga ñëwee ci sin foofu moom foofu niveau bi dafa commencé di yéeg quoi tu vois ce que je veux euh, mm. après bi nga ñëwee ci sin fou boobu nga ñëw woon ne comme quoi que maanaam bu la ko gaa yi jàppee quoi yow da nga dof quoi yow yoroo comprendre suñu xam nga. est-ce que comprendre suñu loolu noonu benn benn benn genre style xam nga benn teg teg bandi la si biir game bi wala nu mu demee noonu parce que après da nga après da nga teg bandi da nga teg bandi for real for real après jàngoroy Kajoor. loolu da nga doon alerter dof bi moom après léegi tere ngeen dee après léegi xam nga dof bi day fël carrément nii xam nga. waaw mais comme li nga wax rek am ga boo ñëwee ci bërëb. Hmm. au moins euh, au moins nga présenté wu nga ne man la diw donc c' était normal ma ñëw ma ne leen c' est moi le fou donc voilà. Hmm. déjà le fou rek mooy yow tu es différent. Hmm. le fou il est waaw. boo ñëwee nga ne je suis le fou. yow voilà yow wax nga ni yow. bokkoo ak ak ak li fi mais kon léegi da nga bëggoon am da nga bëggoon am da nga bëggoon am immunité parlementaire yow. non non du woon loolu sax immunité boobu noonu sama talent wane na jox na ok jox na ko boppam quoi donc euh, du forcing du dara. Hmm. affaire yi moom man bu baaxee surtout bu baaxee non je veux dire je je veux dire dans le son quoi dans le son sin fou dans le son sin fou maanaam yow da ngay maanaam da ngay revendiquer sa humanité parlementaire parce que xam nga bo bo boo caayee nii tu vois am na si yenn daan yoo xam duñ la ko teg quoi da ngay mën a am sa you liberté wax li nga bëgg a wax wala dans le fond quoi effectivement yeah on peut dire dafay laaj dafay laaj xam nga bañ a tënk dafay laaj. ok dugg ci ay waaw loolu la quoi explorer après yow après nga ñëw bro jàngoro Kajoor bro damn. ouf. Mm. bro nu mu demee noonu la moo tax nga ñëwoon rek da nga da après foofu da nga sentir sa légitimité wax si game bi xam nga def ay quelques bar yoo xam te ne gars xam nañ ne que baar baar bu ci nekk xam nañ fu mu jëm xam nañ ko ko moom tu vois da nga pourquoi nga sentir moment boobu moment temps tee boobu ne que ma def benn sang bu tudd jàngoroy Kajoor et puis champ lexical yi ngi ciy def quoi tu vois ce que je veux dire def ci jàngoroy Kajoor bi quoi ak ko yóbbu quoi niveau bi nga ko yóbbu tu vois ce que je ak le fait que nga nekk waa Thiès nii comme ça expliqué ba pare utiliser genre genre jargon yooyu noonu quoi comment ça te vient bon waaw naturellement et voilà pour man affaire yi foofu la quoi justement boo nee jàngoro Kajoor dinañ ki wax luy peut-être il est de Thiès même boo ma xamul sax comprendre nga donc euh, seetuma woon fa sori euh, bien vrai que bëri na lu si que ça soit ci titre bi parce que ku ñu jàngoro Kajoor eh eh bon ngeen baal sama bakkees bi ci suuf xam nga mooy bak euh, bàyyi ko muy bak mi baax. jàngoro en tant Euh, jàngoroy Kajoor waaw ku xam jàngoroy Kajoor feebaru jàngoroy moo tax ma ne début bi jàngoroy Kajoor kenn talatul justement euh, voilà en tant que Thiessois tamit boo boo ñëwee tamit pour te faire entendre comme am nañ ni affaire yi peut-être euh, tout est centralisé Dakar et donc voilà c'était une manière de venir et casser les codes quoi et dire yéen xamoo leen sax li xew en la réalité mooy Thiès mooy bagage bi xam nga doonul woon pour ñëw ni non waa am nañ ci wàll mais non mais dama ñëw pour wax ni Thiès mooy bagage fii la affaire bi nekk après voilà le reste door a ñëw ci ginnaaw donc c'était ça l'objectif parce que lyricalement euh, flow technique et tout et on s'est imposé xam nga on maximum et tout li wax tamit ci euh, tasaare bi ay baar yoo xamante ku ci nga gis ci sa bopp y avait rien de méchant y avait rien de méchant c'est juste euh, benn règlement kii la woon quoi benn juste benn code phare la woon nu mu demee woon noonu code phare la woon wala waaw c'est juste parce que tamit yow booy ñëw booy ñëw di euh, si si tu veux te faire entendre mm-hmm. il mm-hmm. di wax ak xamante ni amuñ talent wala pas amuñ talent sax wala xamuñ leen et tout wala ils sont pas da ngay gis ñu fi gën a influence normalement xam nga nga wax leen leen ok yéen a fi nekk ay agree d'accord loolu am ngeen tour et tout mais voilà faites attention parce que y a aussi le chinois qui est là y a Silkou qui donc voilà c'est normal. Et l'objectif, c'était ça. Et on a on a vu les retombées. C'était juste ça, mais amoon na impact bu baax amoon na impact bu baax bi sound di ñëw bi muy def euh, bi muy def def na effet quoi maanaam je voulais dire def na effet bu baax a baax a baax te sound la boo xam aussi tamit nit ñi tamit euh, amoon na ay polémiques yu bëri yu si yu juddu woon boobu noonu euh, tamit am na rapport yu bëri yu si gis seen bopp sound boobu noonu tu vois que je dire c'était parce que bien fait et c'était c'était c'était trop lourd quoi you boobu tamit nga boobu tamit mm. ak tamit boobu tamit lan la woon tamit pour wax gars yi ne que maa ngi ñëw parce que boobu tamit après si ngay indi sa projet quoi. Mm-hmm. au aussi ngay. xam nga tamit malheureusement dañu nekk ci dëkk boo xamante ni. Mm-hmm. dëkku dëkku coow la. Mm-hmm. dëkku coow la dëkku boo xamante ni dëkku dëkku détail la quoi. xam nga bien organisé et tout. Euh, voilà y a y a de fortes chances que li ngay li faale tu vois mm. mën naa la jox ay exemple bëri ci ay album yoo xamante ni voilà bu doon peut-être beneen dëkk ñooñu ay disque d'or lañu am wala ay milliardaires lañu nekk mm. ci maturité ci comment seen produit nu mu condensé nu mu baaxee quoi mm-hmm. mais malheureusement dañ nekk ci réew moo xamante ni dafay mbir yi dafay war a ànd ak coow mbir dafay war a ànd ak bu dul coow dafay war a ànd ay affaire soit yu ku ci nekk ni koy defee ah mais gis nañ soit dina ñàkk fayda dina am ay mooy fën wala sinon dina dina ci def ay affaires yoo xamante ni ay xam nga après xam nga voilà quoi noonu laa la koy mën a expliquer donc normalement naturellement donc voilà jàngoroy Kajoor tamit euh, euh, stratégiquement parlant c'était juste euh, voilà un moyen de d'ouvrir le eh, d'ouvrir le chemin d'ouvrir le chemin et de passer passer ton truc quoi tu vois yeah fil naa ko bu baax et c'était mixtape la bokkoon boo xamante ni voilà mixtape bi ay sound mm-hmm. mais bu ñu de génn ko noonu noonu comme ça sans ni ça passe quoi yeah yeah Yeah. Yeah. c'était bien pensé c'était bien pensé et puis tamit euh, couvrir na sa projet tax nañu bëri dem découvrir Olip bi tu And uh, uh, mais bro pourquoi tu aimes affaire ñu gis ne que tu es beaucoup dans le monde des maanaam asiatique yi xam nga seen idéologie seen tu vois maanaam sa communication lépp si à travers foofu nga ngay jaarale ngay jaarale li nga bëgg a wax quoi tu vois wala même tey démarche quoi ñu ci gis affaire yu bëri quoi lan la pour yow. exemple. exemple, bon, on t'entend parler de beaucoup de, de la civilisation. Je sais pas quoi, dans les. Madame, quand tu parles de, par exemple, ce, ce, projet bi mujj génn am na am na ay son par exemple son bu tudd ay euh, ay Bruce Lee tu vois on t'entend voilà on t'entend parler beaucoup plus de de yenn yenn technique de combat yi comprendre expliquer on te parler daal ci maanaam ci life asiatique bi je ne peux pas te dire exactement but ci sa biir texte am na ay baar yoo xam da ngay on entend des fois dañuy jox ay quelques ref si si si monde asiatique bi quoi. bëri na sax. ci solo bi bëri na ci langage bi. Euh, démarche yeeg bien vrai que la base la base la base euh, de on dit chinois chinois chinois en pas chinois c'est chinois xam nga genre c'est mm-hmm. mais c'est normal li ñu koy lire comme chinois chinois c'est normal. Mm-hmm. la Chine culturellement parlant wala côté philosophie et tout mhm. xam nañ quoi xam nañ town bu am dara la quoi mhm. town boo xamante ne ñoom spirituellement déjà yaru nañ ils sont bien xam nga c'est de grands penseurs ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy seen vie seen way of life ni ni ñuy dund nag yooyu noonu xam nga da ngay gis ni inspirant quoi discipline bi ak euh, ak attitude bi façon de faire bi xam nga nangoo liggéey bi xam nga teg ko si code bi nii. plan boo laal ah bi. dañ ciy def ay jéego yu mhm. mhm. nga voilà côté film côté temps bi ñu nekk ba léegi nii ah, mhm. nga affaire yi ñu yàgg faj la que ça soit euh, euh, muy film yi muy xam nga leçon yi ñu doon jàng muy xam nga Chine dafa bokk loo xamante ni tamit euh, voilà bëri nañ bëri nañ bagage quoi. en plus côté film tamit ñu yaay rek yàgg que ça soit Bruce Lee que ça soit euh, Jackie Chan wala wala ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc euh, voilà c'est tout à fait normal tamit ñooñu bu demee ba màgg ba mën ba xam nga di exprimer wu surtout côté art et tout mm-hmm. normal que ñu ñu jël trans ci ci mel ne ay Bruce Lee wala ñeneen ak ñeneen quoi. Mhm. man tamit jot naa tamit def tuuti art bien vrai que yàggu ko. si si man nag loolu laa yaakaaroon man dama jàpp ne que man dama jàpp ne que nag tu étais passionné de arts martiaux genre affaire yooyu noonu peut-être loolu moo tax nga nga man pour man da ngay def genre affaire yooyu sax posture nii ku la gis day foog ne da ngay def par exemple benn taekwondo wala karaté wala genre affaire yooyu noonu quoi. waaw jot naa mos ok mais après période boobu noonu ay deux mille deux mille deux deux trois après période boobu ci la dem voyage ci la dem Espagne donc euh, ma arrêté ma teg parce que j'avais plus de coach et mm. moom influence la ci man quoi. Mm. référence la ma bu ñu tamit a voyagé et puis man tamit j'ai pas malheureusement j'ai pas continué peut-être ma continué woon instant bi master laa ci affaire c'est dommage mais waaw am naa ci am naa ci ay notion et puis am naa ci amour quoi mm. a doon donc c'est tout à fait normal tamit ñu gisaat loolu ci ci man voilà pourquoi début de euh, ton début de projet Olympian euh, on voit on voit mm -hmm. pas euh, on voit plus Omzo Beat Omzo Beat que des beatmakers de Thiès alors que Thiès gars yi xam nañ ne que par exemple y a beaucoup de beatmakers hyper talentueux. Omzo Beat c'était affaire yi c'était naturel quoi. waaw mm -hmm. c'était naturel Omzo Beat on pas mal période boobu noonu xam nga feeling bi tamit def fi nekkoon et tout donc dañ dañu jege woon trop quoi dañu jege woon trop. on était presque tout le temps ensemble et tout donc euh, day day naturel day normal xam nga boo dëkkee beatmaker day mel ni Papa Laye rek par exemple Papa Laye on se ñoo bokk ñu nekk et donc c' normal saa yu ma ñëwee studio muy job ci benn affaire bu ma déggee benn bagage dama naa ko booy lii daal. wala boobu jamono jamono Olivier y' avait Papa Laye ou pas. période boobu oui y' avait Papa mm-hmm. bien vrai que. Mm-hmm. Euh, production am yu bëri. yi ñu defoon. Mm-hmm. jotuñu ko woon génne parce que tamit album bu mu doon projet bu mu doon dafay am benn direction bu mu war a jël. comprendre nga. te peut li ma soxla woon ci projet boobu noonu peut-être euh, yu ci bëri Omzo Beat euh, ma yu ma joogoon yu ci bëri moo ne woon ci euh, ci ci suite boobu quoi mhm. suite logique boobu noonu donc da ngay xool rek tey bi album fifty bi boo xoolee presque quatre vingt dix huit pour cent des productions de Papalaye c'est c'est ça au fait c'est que moom laa lay wax ni quoi ne question de kii question de la quoi jamono boobu am jo biit nga fiiloon tu vois environnement yeah yeah yeah yeah après nga play ak Omzo après nga play ak Omzo nga play ak Omzo beat quoi hmm. yeah nga par exemple Buguru Buguru boo xamante ni ci Buguru mm-hmm. mm-hmm. période boobu noonu mm-hmm. période boobu may may doon nekk loolu xam nga ñu doon faj période la mais xam nga kon am ak te génnul pourtant politique pourquoi parce Euh, on n'avait pas besoin de Bungur ci projet mhm. boobu. LCT période boobu noonu LCT mi ngi woon mi ngi mi ngi woon sur place. ok mi ngi woon ak man. ok LCT joué naa lu ëpp. et pourtant bokkul ci Olympique. waaw mhm. parce que justement comme ni ñuy wax affaire yi euh, choix la quoi dafa am euh, parce que son bi na dàq ci son yëpp. Mhm. mais bu bu jëlul direction bi nga xamante ni moom la soxla du comprendre bëri na ay son yoo xamante ne instant yi mooy yor nii yoo xamante ne bokkul ci fifty bi hmm. ay son yu garaaw ay featuring yu garaaw wala ay son yoo xamante ni yu dóob yoo xamante ni génnul hmm. xam nga donc justement comme li ñuy wax ay li projet bi laaj loolu lañu def et puis le reste euh, voilà parce que tamit dafa am solo quand tu sors un projet que euh, yëpp ngay sentir ne dafa am link quoi yeah yeah yeah yeah en tout euh, cas en tout cas Olub c'était très nice tu vois foofu découvrir nañ la fa tu vois dégg la fa tamit nga featuring fa xam nga yow um, yow ak One Lyrica ngeen def ci featuring bu nice xam nga projet bi that was so dope xam nga beat yi banger like uh, with Omzo that was nice tu vois foofu moom ta ta prouvé carrément nekk comme quoi que xam nga am nga sa place ci game bi tu projet bu dope la quoi bon après aussi euh, Olympe y avait quoi y avait Sinfou produced by Ibot. Euh, yeah yeah yeah yeah.

voilà aussi DJ boo xam moo job Eldorado mhm. voilà moo job tamit kii ne dem na mhm. donc Crazy amoon man tolloon na man tolloo ah, non toll non bu dee bu dee côté choix bu dee côté choix bu dee côté choix beatmaker yi moom tu vois euh, tolloo woon na quoi mais bu ma gisee bu ma xoolee choix beatmaker yi dama dul gis rek tu vois un beaucoup plus de chess quoi tu comprends ce que je veux dire alors que côté boobu nga jugee côté boobu nga jugee par exemple am na rapport Thiès yu bëri yoo xam ne ñoom ñoo ñu alerté yenn beatmaker yi quoi xaw ndax comprendre nga est-ce que comprendre te maanaam te gis nañ ne que comme quoi que Thiès seenu hip hop bi ni mu dóobee noon la seenu beatmaking bi dóobee quoi tu vois ce que je dire xam nga foofu rek laa xam nga foofu tamit peut-être xam nga foofu benn affaire la bu ma remarque bu ma defoon nii rek tu vois mais c'était Tu vois, après, bon, quand on parle des producteurs, yeah. quand on parle des producteurs, là où tu trouves Wonder Beat et tu trouves largement, tu Bon, bon, voilà. ça peut mais comme le meilleur, lépp ci feeling bi rek. dafa yow ci leneen lu ci feeling bi ak euh, euh, li may jot a jot ak bi may jot mais néew nga fi non boo dul borom tur du ma jóg ak yow néew nga fi dul underground du ma jóg ak yow wala xam nga damay jóg selon man sama sama vibe sama mood bi ma li ma ma li ma jox. Mhm. voilà mhm. li nga créé par exemple voilà quand tu quand tu connais budget crédit euh, c'est la famille. Mhm. xam nga c'est chambre la. c'est la famille tu vois. et pourtant ci fukki bi peut-être mën nañu benn la ci jox. comprendre wala ci de question de bëgguñu benn ci benn atmosphère. si non c' était vraiment large moom c' était nice quoi c' vraiment large nice on a moom choix choix musical bi moom lépp daa daa was nice après bro nga nga si projet boobu noonu xam nga nga defaat som som som mutation ne après nga jékki-jékki rek non non non non da nga projet bi projet bi nekk di def rotation ah. affaire yi di dóob yaa ngi comprendre nekk sa diggu ndand waaw noonu la demee affaire bi noonu la demee projet dafa génn gain booy taaj yi xam nga di flex nice xam nga is comprendre di flex ba si yàgg rek xam nga bon mu flex quoi après muy jéem a nga di jéem a moom mi dem xóotam di reposer di teg ay incha allah xam nga jékki-jékki rek affaire yi sa carte gi changé ah ñu jékki daal ñuy <laughs> defal benn annonce xam nga solal ñu benn masque gaan benn kii benn genre capuche yooyu nañu gaan xaarale ma vingt heures ma ñëw you know jamono boobu gaan ni lii yàggul la ah, trois ans si avant covid bi di dugg la ci askan toog ba si yàgg rek bro nga may ñu tamare produce ba bii bro xam nga gars eh, ok gars ok na leen déglu mais bro ñu déglu booy nga def a bro mais bro nan lan moo tax nga nekk di def promo projet sa projet di daw ngay def nga commencé di génne say vidéo nga jékki-jékki rek focus ci benn coow bu am rek nga break sa pro sa sa sa promo rek nga ñëw ne da ngay da ngay da ngay da ngay dugg si biif quoi da ngay dugg ci clash quoi. break est man duma ko woowee break promo ah, man pour man loolu pour man loolu ça a beaucoup aidé ça man du ma ko woowee break quoi parce que tamit am na yoo xamante ni da nga koy war a lijjanti saa si quoi après tu passes à woon quoi. ok doonu loo xamante ni booy xam nga day ñëw dara ci kaw moom wala wala situation bu fi newoon rek la situation qui t'a posé à faire un son de ce genre lan moo xewoon lan nu mu demee nii quoi ba nga teg genre son parce que son bi tu as été explicite ah ñëwoo fii di jéem euh, euh, euh, sànni ay pic wala quoi que ce soit ce son était dédié carrément à Omzo Dollar lan moo xew ba nga dédié sound bi maanaam ak Omzo Dollar yan coow moo amoon ba lii yëpp am ko lan moo causé son bi. bon déjà y avait pas Omzo Dollar y avait aussi Elias. Euh, pour ñu comprendre euh, bëri duñu duñu suivre lool mais euh, si si wax nga dëgg tu tu viens de me rectifier et c'est vrai y avait le cas de Elias ouais. buy ñëwaat ci Omzo Dollar mën nañ ni en fait Omzo Dollar c'était sax avant muy Omzo um muy muy El Diaz c'était avant c'était avant sax Samarin c'était période jàngoro yi Kajoor Omzo um par exemple clash ko genre du sax clash c'est tontu la quoi clash bu ma clashee Omzo um wala bu ma ko pigee du du pig du clash mais tontu la quoi mm-hmm. parce que quand tu di tout qui bouge baise xam nga I fuck everybody voilà. ah mais quatre-vingt waaw bien vrai que

pour gaaw a toucher ego waxal ni tu le meilleur wala tu es meilleur que lui normal parce que affaire xel la rek écriture bind beat flow technique. waaw mais néeg bi tamit waaw mais néeg bi mais defal naa mais est-ce que dafa am est-ce que dafa am ay sa ay ma ñaar moo mën a am soit dafa reprendre ci sa ay baar répliquer la après après jàngoroy Kajoor laa man je peux comprendre mais je ne pense ah loolu moo xaw waaw. ndax li ma def ci jàngoro rek la def tu vois lañu xam nga tout ce qui de baisse voilà léegi yow la moo tax mu doon yem ci jàngoroy Kajoor bi kon pourquoi après nga fël benn son boo xam ne koy da koy redresser directement la parole tu vois ah waaw voilà loolu laa bëgg xam nag merci loolu laa bëgg xam nag yeah voilà et lépp euh, waaw période ay vingt heures cinquante cinq xaw ma vingt neuf vingt heures cinquante neuf période il est venu dire sur Instagram qu'il est le, le dictateur de Kim Jong-un et tout. Alors que moi, sur Django et Kadio, j'avais, j'avais que dictateur ou swag, ouais, mais Kim Jong-un. Yeah, mais faut que tu sale, bro. Et lui, il revient. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, mm -hmm. real. Donc, vous n'y avez pas ouais, Kim Jong-un, affaire de j'ai répliqué sur ça si ah bi ñu ma ko wonee mm-hmm. j'ai répliqué ma ma réponse était le seul et unique dictateur de ce game le seul unique Kim Jong-un c'est moi ñeneen ñëpp c'est des c'est wala xamatuma sax naka laa ko waxatee woon mm-hmm. waaw parce que voilà après mu def ça beneen je pense même Kim Jong bi def ci photo affaire yooyu noonu quoi parce que xam naa ne gis na sama sama après. ah waaw waaw affaire boobu gisoon naa ko genre bagage boobu noonu waaw genre affaire boobu noonu gisoon naa ko. ngeen di commencé man dama jàppoon ne ko woon rek te boobu noonu troll yi mu ngi doon neexal game bi tu vois mais jusqu'à en faire euh, un son dix tu euh, boole nga nga boole moom ak Eldias si même parce que Eldias tamit mooy mooy jamono bi Eldias di ruube ah jamono boobu a waaw. ak baar yi demal nga delluwaat. yeah bien sûr Corée du Nord bi xam nga Kim Jong Un bi yeah yeah yeah boobu ñu fi fekk mais tamit mais tamit Corée du Nord mais tafal naa mais Corée du Nord Kim Jong Un est-ce que taay ji moo ko moom wax boobu noonu. ah mais. a jox la ok ok yow da nga jàpp ne ko yow da nga jàpp ego trip Kim Jong Un c'est ego trip la quoi keneen ku laal rek dafa mel ne laal nga taay ji quoi sa concept la quoi. ci game bi da si waaw waaw waaw ok ok ok ok ok ok ok dictateur yi bëri na mën na wax ci Kadhafi mën na wax ci euh, beneen waa ji Hitler mën na wax ci keneen ak keneen waaw waaw waaw waaw waaw da nga ko jàppoon benn benn provocation quoi yeah. ok am Amzodé Amzodé noonu ko neex lay provoqué Amzodé wax nga dëgg foofu xam nga boo ñëwee nga ne sa concept la après daal xam nga si scène bi keneen ko ko laal vraiment écotrip écotripement parlant dafa mel ni juraat sa texte di ci rap rek comprendre expliqué xam nga euh, te loolu defe naa rapport loolu la gën a bañ defe naa nga <laughs> ñëw jël texte am naan da nga ciy rabaat tu vois ce que je veux dire. benn continuité la woon quoi parce que voilà. waaw léegi bu Eljaz bi bu Eljaz bi c'était quoi. Eljaz flow up la woon en fait. depuis flow up. Mm-hmm. ñoo bokkoon flow up. mais après flow up dañu ma signaler ñu ma tawaay def benn émission. xaw ma xamatuma sax ban chaîne xam nga di contester quoi di wax ni wooy xam nga di wax ay affaire quoi yoo xamante ni peut-être c'était pas trop fair play ni wooy taay gagné na flow et pourtant def na ay affaires yi tere affaire de ay taal fii ay këjëk këjëk xam nga ay détails yoo xamante ne je me souviens plus trop trop trop mhm. genre affaire yooyu quoi du contexte et euh, tamit lu lu la metti wala lu la neexul wala tout man tu as ton micro sa carte son sa ordinateur tu as xam nga say texte c'est normal dugal studio nga nga neexul xam nga benn la woon loolu mais beneen affaire tamit c'était que aussi El Diaz doonu woon pour ñëw battle directement ak moom wala pour clashante moom directement ak moom c'était juste benn appât la woon malheureusement xam nga bu ko doon pour man onze rek laa sànni woon quoi parce que xam naa ne c'est un gars boo xamante ni voilà moom yorul làmmelam si pocham instant bi on est on est ay quoi xam c'est pas pour le du mal wala bien xam Hmm. côté ah léegi ah jamono bi jamono bi jamono bi nice ah mu ngi nice seen côté. bon euh, a pas de y hmm. ok mais Zo nag Zo nag j'espère que tamit côté boobu tamit yéen tamit job ngeen defaraat ngeen relation yi ba nga xam te ne ay malentendu wala affaire ah. I don't ah, ok maanaam foofu nga ko képp depuis boobu. foofu nga ko képp depuis boobu noonu ay kii la rek non loolu ay kii la rek ay waxu waxu xaay bi la nii rek grave dañ koy comprendre loolu ay waxu xaay mais xamoo taa ji si moom loolu moom ay waxu xaay la quoi. yoo <laughs> daw la quoi daw laa koy. mais yow yow yow mais yow bi nga dugalee kuu noonu bi nga dugalee kuu noonu zo bu defoon riposte nii yow da ngay taxaw dëggal sa bopp nii raak raak back to back raak raak bi il a très bien fait de ne pas répondre. eh. a très bien hmm? ah! man dama jàpp ne ko comme quoi xam nga am na ay réserve de déglu xaar ba xam mais man gaw ma ne ko comme quoi bàyyi de. ah. mais yow après yan écho nga si am da si am écho kay gars yi naan noo xamula ay euh, genre affaire yooyu noonu genre écho yooyu nga si am. mais mais yow mënoo def émission ak Pape Sidi Fall te après du ma ko du ma ko yëg. il est connu lui aussi. Instagram on te on te donc c'est normal que ma ma ok dama ko rek mooy dafa doon parce que man mënoo ma xeeb mënoo xeeb kaay. ba bañ ko tontu. mënul nekk non on est d' accord c' est impossible mënoo xeeb taay ji nga ne lyricalement techniquement wala même voilà mënoo ma xeeb donc lenn rek mooy am. ok mais du question de mënu ma xeeb du xeeb moo tax ñu wax et tout donc gisuma woon benn raison pour mu bañ mu waroon bañ a sonn mais après voilà c' est normal parce que peut être li doon tàng wala li affaire bu garaaw affaire bu garaaw parce que euh, parce que benn instant yëngal nga game bi ak ak ak ak tamarin bi tu vois ça a fait beaucoup de bruit après ñu bëri comprendre ñu woon loo leen jote par exemple euh, man après laa door a comprendre affaire de dix neuf heures cinquante neuf bi après laa koy door a comprendre mais subitement nii rek bi ma la gisee nga fël la nga teg saam bi dama ne waaw mais taay yi kenn taay yi moom c'est-à-dire fu mu fël nii kenn affaire yooyu xam nga. après ma après si laa dem ma creuser affaire yi ma xool ma gis xam nga plaignant yi quoi après tamit ma lire yenn tu vois yenn intervention yi sur internet tu vois ma gis gars yi di si teg yenn bagages yi quoi and euh, ah benn affaire da am na mooy le son était très lourd te et puis euh, def nga ay jeux de mots yu extraordinaire xam nga euh, teg nga say baar fi nga ko war a teg wax nga li nga bëgg wax après bon bref mooy li nga waxaan rek su la war a tontu xam nañ su la warul tontu tamit xam nañ quoi and that's what's yeah après bro nga ñëw xam nga nga teg freedom quoi mën nga ñu wax ci saan mm. boobu dama tax nga indi genre style bii nii. waaw freedom parce que euh, tamit ku xam taay ji tamit euh, côté spiritualité il faut il faut ma laal ci parce que tamit lu may dund la day every day H24 comprendre c'est normal et puis. Euh, zone la boo xamante ni domaine boo xamante ni voilà daf may daf ma yàgg a daf ma yàgg a intéressé quoi muy muy la spiritualité muy le soufisme et quoi xam nga lépp luy xam-xam wala faire des recherches domaine ma neex la bien vrai que taalibe laa ci bari wala nekk bu ma sax taalibe xëy na maa ngi waaw maa ngi ciy tarbiya ba tey xam nga maa ngi def des recherches ba tey mhm. mais domaine boo xamante ni et puis tamit day day am solo parce que des fois tamit se poser des questions wala les vraies questions tamit dafa am solo les questions yoo xamante ni kii ku ko dégg moom tam danaan yee pourquoi eh, pas lii lii kon freedom bi genre concept freedom buy la ah. Hmm. freedom c'est-à-dire. like um, maanaam uh, maanaam inspiration comme ni nga boo seetloo um, da nekk benn gaañ boo xam ni da ngay ci biir xam nga sànq maa ngi ngi wax ci affaire uh, monde asiatique bi tu vois mais. tey bu ñu flippé ci sa ci sa carrière tamit ñu ñu ñu ñu wu ci sa carrière xool la bu baax tamit dañuy gis ne que da am benn côté spirituel tamit boo xam da nga koy ñëw na eh, voilà dafa am ay jeu de mots yooyu def si euh, par exemple euh, Gaston bi mu ñëwee genre style freedom baay boobu la ñoo di quoi mooy maanaam nañu free ñu ñu dugal baay ci xol yi tu vois ce que veut dire maanaam jàngale baay même bu dee ci biir musique bi la à travers la musique sax nañ ko def pour gars yi ci am accès quoi. Ah, mais yàlla yàlla. yeah yeah for ba xam nga à travers Baye quoi je veux dire tu vois ce je veux dire voilà. voilà xam nga yow voilà man voilà man bi ma suivre sa carrière sa carrière lu bëri bi ma gisee xoolee sa carrière lu bëri dama gis ne que yow ku euh, kuy kuy kuy gëstu nga ci ci ci mbirum Baye te gis naa ne tamit ne que tu es un bon musulman pratiquant parce que ça se voit sur ses attitudes sur ses affaire yooyu noonu foofu laay waxe quoi. waaw non effectivement parce que voilà la la Waay ji Siin Siin mooy santu Cheikh Ibrahima Niass mm-hmm. donc mm-hmm. ji mooy yiin ak yàgg mm-hmm. mooy zahir ak man pour man côté comme bu ma doon old school ma laajoon lan mooy concept man mën sant Cheikh Ibrahima Niass wala mooy science mooy mooy nature moom un moment naturel. Yeah. Donc, euh, ça fait normal qu'à chaque fois, euh, projet bu mu doon projet bu mu mën a génne ma ma développé ay thèmes yoo xamante dafay laaj euh, dafay saf bàyyi ñu la wax mm-hmm. dafay saf yàlla et tout mm-hmm. c'est tout normal et puis dafa solo parce que musique la ñuy def ay xale yi ñoo ñu déglu mm-hmm. ay mag mais surtout xale la jeunesse et comme ni may faral di wax rek la solution fu mu ne nii ci li xew ci yu bëri ci lu muy ñaawteef lu muy lu muy wala wareva lu mën pour man solution bi du état solution bi du sax parent solution bi du kenn solution bi yàlla la one love yàlla loolu mooy solution bi waaw donc euh, c'est normal loolu man mooy sama concept loolu yeah mm, yeah mais teewul après nga continuer nga continuer nga nga indi freedom bi xam nga apaiser situation bi tu vois maanaam ça veut dire que ok clash naa def naa li ma doon def bàyyi leen bàyyi naa leen ak polémique bi je vais continuer ma carrière ko te waa après c'est fii nga confirmer ne ko comme quoi que tu es venu pour faire vraiment xam nga maanaam gars yi commencé comprendre ne que ce boy il est sérieux quoi il est venu pour taffer quoi mooy bi nga fëlee ak freedom tu vois ak OCB quoi voilà foofu moom xam nga gars yi xam nañ ne gars foofu moom da nga war a li da nga teg li wax sa présence scénique quoi ne ko ok parce que am na si foo xam te boo fa mm. tolloo boo nekkee ci biir polémique gars dañu mën a xam quoi parce que boobu yaa ngi woon ci polémique tamarin bi tu vois après gars yi dañu comprendre quoi mais ni si génnaatee tu après nga ñëwaat continuer def sa game c'est nice quoi te loolu dañ koy souligner quoi doon affaire bu affaire bu affaire indi wàccee tension bi indi freedom ci waa après nga ñoo teg si OCB foo def nga noo def nag après nga dawaat dawal affaire bi bandi <laughs> moom noo def moom moom bu seralee ba nga fa ne léegi mu bàyyi mu falaat nu mu fa demee noonu. nu mu demee noonu yow benn tëñë yow benn tëñë wala nu mu demee noonu yow da xam nga yo la mu demee noonu gars non bëri la Dakar rek nga toolu Dakar. yow moom vrai tamarin nga quoi yow yow yow yow mbaa du xob yi sax bàyyi woo leen kaay mbaa ñambaan sax xob yi kaay. yi da koy da koy def poudre da koy def poudre yaa ngi def ko tee c'est normal. est-ce que. noonu. non Dakar gi moom ak ak ak soccu bi Dakar bi yëpp si biir ah. non yëpp yëpp yëpp. Dakar moom day nekk à côté rek. day nekk à côté après ñu continuer suñu yoon et tout. mais ku bëgg tamit def Dakar tamit ñu jox la mais quand même dañuy nekk seen yoon di def ñu ngi def on propose quoi il y a beaucoup de thèmes il y a beaucoup de styles il a a trop de choses à à à montrer quand même tu vois okay. clash sur yeah, le yeah, Dakar yeah, et tout non mais day nekk à côté quoi pour ku ko soxla parce que tamit ay produits rek la ñu yor quoi te produits yi day bëri day divers ku ci nekk ak li la ci intéressé boutique la quoi xam nga lu nga yor boutique boutique bi peut-être Gloria gën a jar wala xorom mooy gën a jar moom la ñuy gën a jënd tous les jours dañ koy soxla wala sinon suukar wala xam nga xorom pole ça dépend mais daal boutique daal affaire daal boutique bi quoi ngay jaay ay produits bari yoo xamante loo mën a jaay nga jaay yee yee yee après nga jékki-jékki rek tàjji na mër <laughs> mais boy wa fan nga foo duggoon boy da nga bàyyi woon rap dafal eh, naa xaaral xaaral e dafal xaaral da nga bàyyi woon rap wala ay histoire d'amour ñoo la xawoon sonal si life bi nii wala da nga da nga tëjowul jël course wala parce que après am na ay affaire yu fëla ah, léegi dañuy da ngay choisir la wax da nga bàyyi woon rap an <laughs> histoire d'amour ma la wala ndax wala ndax da nga jëloon wér ma si ñett yooyu benn moom wala bëgg naa ko xam naa du lu may mën. ok léegi kon yeneen ñaari léegi kon yeneen ñaari la man musique man ok léegi kon yeneen ñaari. ok. yàgg nañoo am ay histoire d'amour ak ay yooyu noonu avant sax ñuy nekk musicien loolu mosu ñëw tënk. non mais déedéet dafa am histoire dafa am histoire d'amour yoo xam ne jar na nga jéggi ba ay jar na jéggi ay frontières xam nga dem xare ji tu vois après xam <laughs> nga indi ndam lii tu vois. plus mm. euh, euh, juste besoin de ce de cette pause là tu vois. Mm-hmm. il de choses il s'est passé pas mal de choses. déjà euh, origine bi rek moom nañu Covid Covid waaw. Euh, lu ñu la. je me rappelle bien daan leen tase jamono boobu daan leen tase ci Instagram bi di yaatal des fois di waxtaan waaw. dafa am impact bu rëy ci euh, société bi. Mhm. et notamment ci ci ci life fu artistes yi mhm. imagine nga xam période yooyu noonu nga xamante ne guddi xam nga gën a projet affaire bi di dox xam nga. ba ñuy tourner et tout defal bàyyil defal ko concert le vingt cinq janvier deux mille deux mille vingt euh, deux mille vingt deux Olive Show et tout affaire bi ñoo nekk guichet fermé fii Nicolas affaire bu xam nga waaye ñu newoon benn bu doy waar tu vois donc euh, voilà après Covid ñëw juste tout juste loolu Covid ñëw. mais Covid bi moom ñu teewul nga teewul après yow nga ah, waaw Covid bi bu ñëwee après yow teewul nga seey parce que moom maa doon si toile bi tu vois mais après man après juste Covid bi bi Covid bi xawee ralenti laa gis nag da nga def seey total. mooy li ma lay wax yooyu noonu loolu bokk na ci origine bi loolu mooy njëlbeen bi causes yi dafa bari après mën naa ne lépp ci causes de la tàmbalee. Hmm. par exemple tu es artiste yow sa yow sa revenu say say rek mooy moo la

xaw ma nag ñeneen ñi ko am mais je me ni en fait on vivait tamit xam nga ñi ngi doon dundaale ak benn danger ni quoi peut être boo xamante ni ñu ngi doon ñu ngi doon avancé xamuñu woon mais danger boobu mën naa Covid 19 yéen a ci euh, ci lu bëri bi shutdown bi amee waaw si kenn mënatu ma dem fenn doo voyager doo concert doo tëju doo def yàlla fan et du contraire. Hein? Mm -hmm. Pour moi, le beurre, se sont posé cette question. Mm -hmm. Et alors, et après, mm -hmm. on va faire. Donc, mm-hmm. a pas de concert, il n'y de. wala euh, mm-hmm. mm-hmm. donc ñu ñuy def ba dund ci boo xamante ni voilà ça ans deux ans et demi donc man déjà man de conscience Euh, c'est pas c'était pas une bonne idée juste focus ci musique rek di def musique kese kese point bas mm-hmm. mm-hmm. après oui par la suite période yooyu noonu vu que y avait y avait rien et tout après voilà y a eu benn opportunité bu génn am naa tamit jàng naa am benn opportunité et puis je me suis dit il faut que ma changer méthode ok nga changer technique bi quoi léegi technique bi lan la léegi technique bi lan la c'est c'est euh, d'exploiter tes diplômes d'aller chercher du boulot xam nga faire ton taf après de faire la musique parallèle essayer de fonder une famille ou de faire quelque chose de ce ok c'était looy suturaale. waaw looy ok ok. that's a real talk. yeah a nice move I like that. voilà loolu tamit day gën a ñëw dëggal mm. xam nga te lii mm. réellement il faut qu'on faut qu'on bouge ok il faut que ñu def dara mm-hmm. euh, je euh, peux dire que léegi je peux dire que tu un rappeur indépendant qui contribue même pour ta carrière quoi maanaam da ngay dem di joobi di gérer sa famille di contribuer pour sa carrière pour affaire yi dox quoi. en fait bien vrai que c'est c'est compliqué noble quoi c'est noble et loolu dama la ciy shout out bro dama ciy shout out for a that's a nice move for bu dope la I like that vraiment. yeah yeah yeah, aussi euh, musuma woon yaakaar mais eh, di liggéey quoi boole koog leneen. est ce comprendre mosuma woon yaakaar mosuma woon mosuma woon doxee loolu. alors voilà lu a nekk bien vrai que ak aussi ça demande ça c'est très compliqué. man sax man sama liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà mm-hmm. life bi lépp sax. c'est possible man musique musique ak liggéey bi may def ak beneen liggéey laa yemale. mooy liggéey la xaalis. c'est important dundal sa bopp dundal voilà c'est important c'est important il faut tamit ñu def loolu tamit. yaa mooy que ni musique tege ko ne. ñu xam ne lii mm-hmm. loolu ñu ñu la musique. gis naa ne man man man man new man new man new génération bi li ma leen faawee yéen ñëpp si loolu loolu la quoi mooy affaire bi ngeen ñëw ngeen def ko job ci waa ak am ngeen si ful la quoi xam nga. même vrai que da ngeen nekk ci benn société boo xam ne comme ni ma xam nga war nga génn si mais ñun jàppaleen ne comme quoi ñu ngi seen ginnaaw di leen shout out di bu baax tu vois si di di leen push di leen wax ne que bu leen bàyyi seen seen rêve yi ngeen am tu vois mais euh, c'est bien aussi de nga lire situation sa dëkk nga xam ne sa dëkk peut-être xam nga lépp tegewul tu vois nga a créer benn rêve kese si hip hop bi mais bu dee am nga beneen affaire boo mën a def dama nga def ko tu vois di di subvenir à tes besoins quoi. you know loolu uh, dama la ci mais rek ab waaw mais mais si biir bi nga mais dañu mais dañu dundaloo affaire life mais dañu dundaloo affaire life star yooyu nga seey ba pare xam nga après jékki-jékki rek ñu gis ne la ji xam nga takk na jabar xam nga affaire bi fële si toile bi gars gis ko nga dugg people bi nii ni mu fa demee noonu gars mais rapport underground dina dugg si eh, people gars. <laughs> mooy maanaam xam nga <laughs> people mooy xam nga mooy si net bi nii jékki-jékki romb benn gangster nii benn gangster nii mu solo alaaji nii xam nga ànd ak benn xam nga benn saa ndey nii comprendre nga. ànd bu baax. <laughs> waaw. wala loolu. waaw boobu loolu ci monde people bi la yaa ngi ci biir de. Ouais, mais, ouais, mais yooyu noonu yëpp baax na yooyu yëpp si si ça peut faire avancer les ñu xam ni ay nit lañ quoi ay nit lañ ay nit yu am xol yu am xel. for am ambition. yeah lu baax. yeah for real for real image boobu surtout foofu laa foofu laay gën a waxee quoi image boobu dafa. yeah yeah yeah you know xam nga waaw from zero to hero bi ni ba pare xam nga ñoo di xam nga affaire de ay comme comme ni nga ko waxee rek ay nit nañ quoi dañuy def yëfu nit tamit xam nga you know what mën nañ jóge ci waaw mën nañ jóge ci mën nañ jóge ci seen mën nañ jóge ci seen fu bi ci ñëw ci seen nit bi you know what xam nga waaw that's what's up that's what's up nice move bro nice move heureux eh, ménage j'espère que yaa ngi koy dund nice xam nga que lépp mu ngi carré mais xam nga nga dem dund après nga dem consommer sa mariage bro nekk sa gaan bi gars yi na ne xam nga xam nga mooy loolu quoi day bàyyi mu liis nii xam nga bàyyi mu ratax nii xam nga nga toog ba si rek xam nga. Hmm. nga toog ba si yàgg rek maanaam ñu commencé waat la déggaat ndànk-ndànk quoi nga ñëwaat si game bi xam nga. xam hmm. ñu ay apéro comprendre nga. Eh, mais man bi ma gën a. Hmm. bi ma gën a marqué Moustapha Mané. eh boy kan mooy Moustapha Mané. Moustapha Naam. Moustapha Naam. mooy Moustapha Naam. mooy footballeur boobu noonu. footballeur bi. oui boy man nag Moustapha xam quoi te euh, xam nga parce que jotul woon joué ah c'était le joueur sénégalais là ci CAN boo xamante ni jotul woon discuter match et pourtant il a gagné ah, il a il a il ok ok c'est champion d'Afrique quoi c'est ce que je veux dire quoi ok mais en même temps on l'a on l'a connu à par exemple. comme ni ko Naam ok ok. xam xamante ne parce que justement le retour de taille bi ça sortir des larmes loolu laa bëggoon approche boobu la that was uh, okay yeah the wuya yooyu tey ñu dee yeah boy bu lëj bi ñëwati yeah après nga ñëw ah, yeah après nga ñëw sa ban sound moo symbolique ah? next. next a ngi noonu de. mais ban next a ngi noonu de next Sénégal rek ah Sénégal moo ma Sénégal rek laay xool attitude. Mm-hmm. Euh, ci ni ñuy comporté après mm-hmm. voilà. mu mm-hmm. nekk tamit son boo très engagé ah mais xam nga boo xamante ci ay cas lay wax. xam nga ci ay xam nga ci mm-hmm. li xew ci temps mais mm-hmm. ci gën a am am solo ci son mooy pour man xam mooy le fait que malgré tout ce qui se passe ci ñaawteef ci réew mi malgré tout ce qui se passe ci coow et tout les Sénégalais arrivent passer mais une vitesse extraordinaire xam nga. à autre chose. comprendre nga expliqué. Mhm. dañuy dégg tey benn explosion bu am xam nga tey cent mille personnes dee mhm. et tout. demain on passe à autre chose mhm. yooyu mu amaat beneen situation bu am. parce que trouvé ci solution. xam nga waxuñ waxatuñ ci dara lu ci dem et puis foofu la ñu bàyyi problème bi surtout loolu quoi le fait que am benn problème bu fi nekk. mais on règle ces problèmes avec d'autres problèmes sans pour autant solution donc euh, te noonu la ñuy dundee maladie temps yi sax xaw nañoo calme tuuti sax daa mel ah, mm. daa mel dëkk bi xaw na calme ci ay ay cas ay ay kii mais mm. amoon na benn jamono joo xamante ni tous les jours y avait une situation que raison pour laquelle sax xam nga ci son bi ma ma indi waa jooju noonu. Mm. xam nga jaay rek boobu noonu di wax nag chaque jour qu'on ah, uh-huh. Uh-huh. donc euh, voilà. malheureusement loolu yee ba pare ko def à la style da nga ko def boobu noonu. na benn son genre je je yooyu noonu genre son boobu noonu. genre bagage yooyu noonu. def tamit euh, def naa tamit genre karam xurum xaq yi zappel ah zappel zappel. yaa ngi fàttaliku boobu hmm. zappel bu. Euh, carrément wala. voilà voilà voilà non kii waa kii waa kii waa masxuba masxuba. ok non maa masxuba masxuba yaa ngi tegoon nañu fi benn saan bu mel nii genre usile bii nii xam nga teg fait de société nii xam nga mais defal naa ma dama sentir tamit ci yow benn côté engagement. Mhm. Hmm, ci société bi nii social bi nii engagement boobu noonu am nga impact biir Thiès wala da ko def Sénégal en général. bon en tant qu'artiste parce que dégg naa man ay pro dégg naa say punchline na ah. yow tu pro Sonko. man I support Sonko waaw. je supporte et puis hmm. voilà gëm naa gëm naa idéologie quoi. Mm-hmm. damay gis sama bopp ci bëri ok donc parce que dama koy dégg ci say punchline am nga ay punchline sadik yooyu mais surtout si sa last projet bi nii yu sadik yooyu mais yoo xam te ne nii xam nga maanaam da ngay sentir philosophie mm-hmm. solution bi quoi comprendre suge am sentir comme euh, na benn am na benn track euh, xaaral ma wax la titre bi si euh, biir Abdou waaw <laughs> da def ay yenn da ngay mhm. def ay yenn jeux yoo xam ne ça me fait voyager ci yenn propos yi ngay wax quoi tu vois si ki liggéey ak ki liggéeyul quoi tu vois ce que je xam nga ki mhm. joob ak ki joobul quoi mhm. xam nga foofu am na ay affaires yu ma fa nii xam nga si biir waajur tamit xam nga yenn principes yi yenn valeurs yi ngay ñoo di tu vois na si ay affaires yu voilà am na ay yu ma si dégg yu ma sentir des principes et des valeurs yoo xam te ne c'est maanaam c'est patriotique quoi c'est pas une question de Sonko c'est pas une question de Sonko quoi mais c'est qu'une question patriotique quoi tu vois maanaam des valeurs yu ñu fi vaay quoi mais loolu dinañ si ñëw après projet parce que eggaguma si sa projet boobu noonu parce que projet bi beneen niveau la tu vois euh, pour te dire quoi ne man loolu laa fil quoi dama gis ne que tu es un gars engagé tu madame tu, tu, tu, ne mâches pas tes mots tu vois si tu as quelque chose à dire tu, dans la société tu l'as dit depuis depuis defe naa tamit euh, daan nga def ay live di di sensibiliser tu vois wala ngay def ay yenn publication di sensibiliser di wax tamit si kii loolu gis nañ ko et puis loolu dama la ciy saluer ah parce que dama gis ne que da ci am position bu bu bu claire quoi tu vois euh, mm-hmm. Mm-hmm. Euh, après nga nga nga nga rek nga annoncé sa projet quoi da ngay ñëw ak sa sa projet tu vois euh, bro mmh. lan après après OCB. ah ak euh, tout le staff. je tenais à saluer Dave. yeah. Dadomar ak euh, staff bi yëpp. yeah teew fii moom gars yi moom teew si si si kii bi quoi teew si si. on a fait. ma ne gars yi. boo idée ou dev la en fait la la manière la stratégie et tout parce que boo xoolee on a combien de temps parce que cinq ans on a enchaîné mhm. cinq ans euh, mois un mois. donc indi nga da nga indi apéro indi Moustapha indi Moustapha Naam indi next indi jubilé après doo refël ak projet bi waaye. Mhm. donc euh, yeah loolu déjà du ay juste pour. c'était juste tamit pour wane ni tamit booy gars yi namoon naa leen et a peu tout mhm. attente beeg noonu neexal gars yi quoi mhm. pour wax ni maa ngi jégalu mhm. ci rank et projet bi di pare yooyu parce que projet bi waroon na génn bien avant malheureusement ak li doon xew ci manifestation yeah yeah circonstances yoo xamante ni moo indi woon lu taxoon affaire bi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. la euh, projet bi lan la projet la moo tax nga ne euh, da ngay indi projet quoi euh, nga def ko ben benn EP e pourquoi parce que déjà que jot naa fi fallait que ma table bi fallait que ma ma bégalaa tamit followers yi ñu ñu bégg taal tout c'était fait normal parce que j'en besoin xam nga j'avais besoin de m'exprimer. mais yaa ngi doon cook ci suuf. oui bien sûr bien sûr gisoo la cuisine man man cuisine bi ma fay gëj. Mm-hmm. la cuisine voilà mm-hmm. mooy sama voilà quoi cook cook cook bi moom quoi. Mm-hmm. ci lañ ci lañ dëkk daal ci lañ dëkk donc euh, voilà lu ma gënoon lu ma am lu ma am lu ma lu ma maa ngi woon keneen ci suuf doon def. xam du. du am nga mille son du ay pare na du yooyu noonu yëpp ñu ngi fii que da nga a génne du noonu génne dafa am lu muy àndal ok donc euh, voilà. quoi le job c'était quoi quoi le job derrière vous avez da euh, parce que waa chambre neuf euh, yaa ngeen ñuy wan vraiment nekk comme quoi que vous êtes organisé si timing de sortie que ça soit artistes yi ñu am moment bi nga yow nga defee mutation teewul chambre neuf noppi quoi. teewul chambre neuf noppi teew teewul na chambre neuf maanaam big data x mi ngi tasaare quoi tu vois. noonu loolu noonu da nga ne woon ok bàyyi ma ma flex tu vois ma cool xam nga rafraîchir les idées en attendant chambre neuf mi ngi fonctionner tu vois est-ce tamit jàppale wu la parce que est-ce que jàppoo ne ko comme quoi bu fekkoon yow kese nekk chambre neuf par exemple di reposer est que sas bi du gën a métti quoi Bon, waaw, waaw, c'est vrai que am sa wet ku mel Big Daddy wala Fnatic, Crazy, Dave, Apala et tout, xam nga, on bien entouré quoi. Mhm. sa xel dina dal ci yu mais pour man bokkul man sama sama sama rupture sama absence ak yooyu noonu comme li ma euh, Voilà, yi yi ci laxasu woon waaw mais comme li nga wax n'empêche Bulgaris il était là doon ko doon et tout mm-hmm. une bonne chose heureusement et heureusement qu'il était là parce que imaginez bu fi néew après on aurait dit que ne way Thiès donc euh, voilà c'est mort quoi dañ naan dañ naan Thiès ci boppam lañ lañ dul heureusement qu'il a été là je pense que waaye am na benn période boo xam ne c'était di loolu tamit day xaw a day xaw a con aussi le fait que nga nekk benn artiste loolu ci benn région xaw a parce que justement comme ni nga wax tout en sachant que ni tu as des hommes yu nekk ci wet gi yu war a mën bi xam nga yëngal quoi xam nga mu nekk benn combat boo xamante ni ensemble lañ c'est pas évident donc je tenais sollicité Big boobu noonu that's a nice move that's a nice move te fil nañ ne ko comme quoi benn instant yaa ngeen di fatante ay trou quoi te xam nga yaa ngeen di représent hip hop Thiès mu taxul muy muy xam nga muy am dynamisme boobu noonu tu vois xam nga di di di fële si toile bi à chaque fois quoi that's what's up xam nga affaire bu nice la vraiment ça se voit xam nga yaa ngeen di togg affaire yi muy muy cool quoi yeah bro après nga ñëw nga ñëw projet bi mais bro fiti bro mhm. pourquoi lan lecture nga def yan recherche nga def si moment bi nga defee mutation lan la da nga dem nga cultiver waat nga gën a xamaat way of hip hop nga gën a xam nga essence bi nga fi nekkoon déjà wala dañ si gën a mhm. approfondiru pro ba nga ñëw teg caaru idéologie yu leeree nii quoi. Oh, waaw recherche moom. du du lu ñuy ci lu ñuy nekk la chaque fois mais pour man euh, projet bi vécu la gën a nekk quoi que recherche man dama doon surtout boo xoolee euh, boo xoolee euh, fifty par exemple deux cent fifty yeah bro boo xoolee dama waaw ñëwal waaw dama dama relaté wax par rapport ak sama vécu mm-hmm. par rapport influence par rapport ak ñi nga xamante ne ñoo ma marqué dafa sound bi dafa dafa graaw bro thank you quoi taaji merci merci merci merci ah merci xamul tax ma wax la merci du xam nga ko no vas-y yeah merci d'avoir été le jeune rappeur sénégalais conscient de fêter les 50 ans de hip-hop dans ses morceaux. My vraiment d'avoir rendu la culture utile quoi. Tu vois. Et fi gars yi dafay amee complexe hein di créer polémique. naan dañu war a féete cinquante ans yi wala duñ ko féete suñu hip hop la wala duñ ko suñu hip hop yow tu comprends l'influence mm. tu comprends les enjeux tu comprends ce que tu comprends métaphore bi ñu ci mën a def représentation bi and la mm. chose la plus intelligente nga jël benn rappeur bu symbolique comme 50 Cent bi nga xam def la influencer peut-être yow sa génération ak sa génération ñi nga ñi nga nga màggandool ñi nga tollool génération tu vois et nga def jeu de mots boobu entre fifty cent and fifty years of hip hop bro another one another one and another one man nigga eh, that was a nice move bro and thank you for this shit bro jaajëf waay merci beaucoup waay ci euh, ni ko signalé nii ko souligné nii parce que voilà effectivement euh, comme li ñu wax rek hip hop euh, reconnaissance ak respect pour man naa c'est la c'est la comprendre nga et euh, reconnaissance ci ñi nga xam def rappeur comprendre tout à fait normal lu may nekk tout tànk dama am sens li wax à chaque fois rek dama amoon sama grand frère c'était un DJ dama doon am chance doon déglu ay xeetu musique bu ne ça soit rap ça soit kunaana ça soit salsa xam nga galsen tout ce qui est rapadio et puis quoi daal di pakoti bien voilà je me considère pas comme un school mais je dirais que dama dama teel a déglu musique donc chance boobu noonu laa am ci environnement boobu donc te yàlla def ma dem ba nekk artiste di sang c'est tout à fait normal ma delloo ñoom jukkal c'est tout à fait normal Fifty Cent aussi euh, comme ma ko waxee rek man moo def sax rappeur moo def rappeur E benn album bu mu génnee en 2003 muy Get Rich or pour wax la rek ni hasard am moom ba 2023 il est de fêter le Get Rich or Die album boobu man moo ma def tey moo ma def tey rappeur Jasmine Félix je le plus fort quoi comprendre donc c'était une manière de boole yooyu noonu yëpp ci benn ci benn ci muy cinquante ans hip hop pour man voilà quoi coup chance la rek quoi ñuy fête cinquante ans de hip hop en même temps man nekk koo xamante ni dafa am impact bu am solo ci sama life donc euh, yeah pourquoi pas ma ne ma ne woon pourquoi pas ñu boole ñaar euh, mu tudd concept album concept EP bi quoi tu vois un peu te boo xoolee sound yëpp presque presque sound yëpp du ma ne nag sound yëpp presque am na ay chant waa am boo xoolee ci ci sound ba outro am dina am benn benn phrase wala ben benn mot boo xamante ne dalay delloo dalay delloo démb quoi comprendre mm-hmm. par exemple mm-hmm. wat wat wat gis man for my nigga xam nga bu bu mën a BMJ mm-hmm. wala dëgg loolu dinaa si ñëw loolu dinaa si ñëw bro affaire yooyu yëpp gis affaire yooyu yëpp jot naa ko si yooyu um, yëpp jëli naa ñi nga affaire yi nga yi nga yee même ba ci sanganu waajur bi sa am non ba ci style style di maama bi mais dinaa fait autrement quoi c'était c'était intelligent tu vois ce que je dire au lieu nga yem si mère bi rek nga nga indi waajur xam nga paa beeg bi yëpp xam nga you know what nga wane seen mënin quoi wane seen non bro this bro this project is ah album yeah album hommage album yeah album hommage la mais mais bro dafa am benn hommage yaa may dégg dafa mel ni li wax dafa xaw a suufe nag quoi dafa xaw a suufe trop I'm sorry baal leen ma de sama jumtukaay ñoo ñoo xare ñun quoi fu mu ne nii baal ma rek <laughs> non wul dugg si yooyu <laughs> yeah léegi non boobu boo gën a mën wax tuuti si kaw rek mais sinon après le reste cool ñu ngi dégg ah. yeah euh, euh, projet bii nii projet bii nii reflet bi moo bari. xam nga ba ci bi ba ci bi nga swagee taxaw. tu sol sa gilet pare-balle bi maanaam le fait que représenté loolu noonu yëpp c'est immense quoi c'est immense maanaam tax nga tey beneen génération bu ñu ñëwee dinañ inspiré wu si façon degen bi nga indi quoi ci vois xam nga and euh, waa degen bi nga indi ak ni nga ko c'est bien réfléchi timing bi is perfect xam nga sound yi sample yi technique bi woy mi ngi baax de xanaa may ko studio bi nga branché gaan allo waaw ñu ngi lay dégg de mi ngi baax de bi baax naa ah. woy léegi nice kañ. waaw kon kon c'est le waaw. waaw acca bismillah waaw. mais est-ce lu ñu reprendre émission bi gars affaire bi instant bi leer na de. <laughs> non kañ kañ commencé à zéro comme kon dañ may kon dañ may <laughs> ah, damay provoquer damay provoquer. <laughs> yeah yeah so. yeah mais foofu laay waxee ko ma ne euh, vraiment li moo tax ñu ne des fois nga reculer pour mieux sauter dafa baax quoi daf lay ubbil ay lay ubbil ay kii quoi da am lecture de jeu quoi. tu hmm, vois c'est important voilà ce projet bi da nga teg ci support bu leer. da nga ko teg ci hmm. timing ak historique quoi. Hmm. comprends nga. et c'est important quoi xam nga ça ça ça ça mérite d'être allé d'aller d'aller l'écouter je te dis. feedback yi ma jot si projet bi jotaguma ko si yeneen projet yi ci deux mille dix ci deux mille euh, nu tudd. deux mille vingt-trois bi mm. yeah I'm telling you ah. jot naa ci feedback yu bëri bëri bëri yeah gars yi ak ah, ah, déglu nga album Taiji seen bi déglu nga album Taiji seen bi déglu nga album Taiji Scene bi you know what I'm saying and ça ça fait ne que gars yi maanaam give nañ la respect bu mat sëkk à travers projet bi quoi beneen hmm. affaire bu ma si gën a marqué mooy comment est-ce que t'as timing bi. nga ah. dugal ci sunu nga dugal ci sunu copain Baba Ndiaye quoi si cover bi comment est-ce que t'as fait. lan moo la inspiré moment boobu lan moo la yee parce que projet bi je pense que bouclé woon nga ko bi nga xamante ne ni maanaam moment bi nga xam xamante ne ni Baba Baba Ndiaye génn na àdduna lan moo tax nga nga gën ko jox clarté si album bi projet. bon un EP. Dev ah Dev ok voilà lan moo tax lan moo tax nga def loolu ak lan la Bamba Ndiaye di représenter pour yow. Euh, déjà do loolu loolu loolu deew laa ciy félicité quoi parce que il a eu cette idée géniale parce que xam nga boo nekk tamit ci euh, xam nga tamit staff li moo tax mu am solo quoi xam nga xalaatu da koy soxla tu parce que boo nekk di di créer yow quand tu quand tu es un créatif ngay nekk di di créer quoi tu vois di bind di inspirer wu et tout tu peux pas en fait xam nga il faut tamit euh, bàyyi ñeneen ñi tamit joxe seen xalaat et puis euh, c' est important yooyu noonu yëpp mooy def euh, mooy def charme liggéey bi quoi idée bii nii jël Bamba Ndiaye def ko ci fond cover bi ça vient de Dev moo ma ko suggéré moo ma ne sa waaye li bu ñu defoon lii dina nice j'ai pas hésité ma ne ko dañ ko war a def sax tu vois Bamba Ndiaye aussi sunu relation Euh, Bamba sunu grand la woon xam nga une famille c'était une famille. Euh, Jéggi ak Chambre Neuf c'était benn label la woon quoi waaw Jéggi Raay lépp lu mënoon def Chambre Neuf da ci da ciy saf sap euh, depuis ay open dos ah depuis ay open dose chaque année ñu ngi woon ci biir que ça soit phonétique wala déggat wala man et tout et puis pareil ñun tamit bu ñu amoon festival fii Thiès ñoom ñëpp dañ doon ñëw comprendre nga. que ça soit El Jazz que ça soit Big uh, Paco wala uh, KMT ñoom ñëpp dañ doon ñëw ci festival yeeg yooyu noonu donc euh, c'était une famille quoi Bamba aussi mu nekk koo xamante ni euh, homme de culture la surtout nag culture urbaine bi daf ci jouer liggéey bu am solo ama am am solo waaw taxawu na ñëpp lépp nga ko doon gis muy support lépp nga ko doon gis ci Facebook bi wala ci Instagram da partage partager ki doon kii da support quoi parce que justement koo xamante ne la hip hop rek la doon dund quoi donc euh, je pense euh, c'était tout à fait normal et légitime tamit quoi xam nga euh, bu may génne projet projet boo xamante ni ça rend hommage que justement ci hommage yooyu noonu tamit ñu boole si koo xamante ni dafa jouer lu lu am solo ci ñun suñu carrière mais en plus jouer lu am solo ci hip hop bi nga xamante ni moo ñu moo ñu defar donc c'était ça mu nekk très grande perte hein, pour, le, pour le mouvement hip-hop, pour Jéggi Raay mais pour Chambre Neuf aussi. comprendre donc euh, ñu ñu ñu masawu famille am bu baax di ko jaalewaat encore une fois famille am di wax ni waaw perte perte bu rëy la quoi ci ñun waaw. yeah nice ñaanal euh, Omar Omar Dieng nga xamante ne tamit euh, ci sama samay amis d'enfance la woon tamit. yoo xamante ni jóge na fi tamit euh, ci daaw daaw la fi jóge woon ci ci période novembre beeg yooyu moom tamit charaot naa ko ci ci album bi et tout ci fifty bi donc euh, voilà ñu ngi noonu la leen yàlla xare àjjana yeah yeah ñu avancé vite fait projet bi parce que instant bi ñu ngi mm. jël sa temps xam nga mm, and mm. Euh, après ñu yeeru mais vraiment vraiment chapeau vraiment si ça veut dire que lii lii la Balvada di wax naan coono du réer quoi waral la def maanaam nit ki xol rek la yàlla di fay quoi yàlla def sa projet di génn tu vois euh, mu am Sénégal on a tendance que nit dina fi jaar ba jóge fi def fi ay affaire yu rëy ñu jooy ko ñetti fan après ñu ñu fàtte ko. tu vois waaw hip hop hip hop daf ñuy may ay support yoo xam te ne dañuy mën a di même di mu am en mémoire de tu vois que ça soit des mm-hmm. graffitis. tu mm-hmm. vois que ça soit sur les albums wala sur les t-shirts. tu vois ce que wala ci mhm. mural yi tu vois te je pense que comme quoi que loolu war ngeen ko commencer fight am na hip hop benn benn patrimoine la suñu dëkk war nañ ut benn mural bu muraille bu rëy boo xam te ne nii na nañuy def suñuy légende quoi effectivement tu vois voilà parce que tey danga def benn da nga da nga raffigurer waat hip hop si si c'est vrai vrai terme quoi tu waa hmm. mooy nga ci sa cover nga nga def ci muralu euh, Bamba Ndiaye te incha allah ñun dinañ fayat ba Bamba Ndiaye am Meral bir town quoi incha allah te loolu. xoolal taw dina si dina si taxaw bu baax. tu vois et aussi à benn loolu benn prox ndollu la rek pour wax ni comme li nga wax rek. Mhm. Euh, ñi fi des ci légende yi ñi fi des ci ñi liggéey lu rëy ci hip hop di dund. dañuy mhm. dañuy euh, am habitude di sargalante suñu biir. Mhm. bien vrai ko commencé na sax gaa yi ngi koy def gaa yi ngi def ay concert sargal des fois nga gis ko xam nga et lu baax la nañ koy def nañ koy fësal bu baax nañuy fasal suñu liggéey nañuy sargalante suñu biir nañuy euh, delloo njukkal ñi nga xamante ni ñu ci bëri ci ñun ñoo tax ñu nekk ñu nekk li ñu nekk tey. Mm-hmm. nañ leen di nañ leen di nañ leen di voilà. nañuy fësal suñu reconnaissance ci ñoom quoi balaa ñu fiy jóge justement ñu leen di def ci ay murailles yooyu noonu ngay wax même de leur vivant pour man mooy ëpp. dina am na solo quoi real talk maa ngi real mm. baax na yàlla yàlla xam nga sotti li lépp eh, di la di la ci remercier au de la place de Khou Real Talk parce que Khou Real Talk la daan nekk all day tu vois fii la daan nekk di waxtaan ba veille bi nga xamante ne dafa doon dafa ci la génn àdduna fii la nekkoon quoi. tu vois waaw di di di ko di ko jaale ay mbokkam xam nga di la di la bu baax tamit si réfiguration boobu nga def si Bama Ndiaye tu excellent quoi. c'est excellent et ça nous a ñun ñëpp touché nañu quoi affaire boobu noon daf ñu ko touché bu baax. et merci ci sa clairvoyance côté boobu noonu ko di la remercier ci aw euh, au nom de tous les gars qui sont qui sont ici quoi. merci beaucoup. yeah bro lan mooy bro man am na nag benn affaire nii man après damay saale nii rek tu vois après dinaa déglu son bi mais après damay bëgg mm. laaj la quoi lan mooy buguru. <laughs> waaw buguru. Euh, Bougoulou c'est euh, en fait boo xoolee projet wu projet wu beneen artiste la projet wu beneen artiste un ami à moi Cheikh Omar hmm. tu vois c'était son projet à lui mais mais moom c'est un artiste plasticien en fait donc euh, pour dire vrai Bougoulou amul signification bon man boobu personnellement man man il m'avait juste dit que voilà booy bi bëggul tudd yooyu noonu peut-être euh, développé wu ñu woon noonu carrément peut-être lui sax il sait il sait pas tu man personnellement je je je sais voilà c'est un nom quoi moom nee na tur bu mu choisir la nii rek et tout euh, donc euh, amul signification bien vrai que am na yenn dëkk yu ñu ma wax ni ma am na benn lac bu tudd Buguru ci Mali xaw ma wala ay xaw ma ban beneen dëkk et tout am na ay dëkk wala ay yenn kii yu tudd noonu quoi yu tudd Buguru Mais Bougourou, en tant que tel, en tant que nom, c'est le nom d'un talibé, d'un enfant de la rue. Tu vois mais amul benn signification bu particulière boo xamante ne man am naa ko wala sama xarit bi am naa ko donc c'était c'était projet à lui benn exposition bu mu def sur un enfant de la rue tu vois bu ànd ak livre et tout ànd ak tableau tableau talibé quoi tu vois muy raconter histoire am et tout donc euh, voilà mu invité woon ma aussi. ci affaire boobu moo resté dans ta tête quoi si nga tuddee ko Tigre Son quoi parce que man dama dama affaire bi dafa ma tëb sax parce que affaire bi dafa ma curiosité la si man quoi. parce que je n'ai mm. jamais entendu de ce genre tu vois. justement euh, ma gis ko nga def ko titre album j'ai voulu vite fait te demander après dinañ ñëwaat ci boobu quoi parce que moom rek moo leerul woon sama bët si titre yi quoi. je mm. n'avais jamais compris a amul benn signification bu bu non euh, waaw alors da nga ko utiliser comme benn champ lexical nii rek après nga def ko si sa sound wala. moom sax venait de lui man créé wu sax moo bi moom sama xarit ah, boobu moo ko moo ko moom mais moom moo décidé tuddee noonu taalibe bi mu tuddee ko Buguru. tu vois donc euh, voilà. so man dama demoon ci exposition bi l'histoire m'a marqué. ma ko lii dama ko bëgg a def musique dama ko bëgg a def son mu ni ma mais. vas-y ok ok ok voilà noonu ok comprendre gis benn tour benn noonu yi rek mu impressionné la bi sax ah ak bi sax contenu bi quoi. ok mm. mais pro niveau. yeah son gars yi. mais bro. oh DJ you. oh DJ you. <laughs> yiw mi ngi noonu de. bro lan la sound bi trap la drill la bu am scratch. sound bi kay kenn xamul comprendre ma bro kenn xamul lu mu doon. ba xamul gën a garaaw kenn xamul ne trap la kenn xamul drill la. ba bro da <laughs> def affaire bu garaaw da nga osé maanaam indi ko ci jamonoy nine easy quoi def ci scratch quoi. ouais dafa leer on parle de hip hop on parle de cinquante ans de hip hop c'est tout à fait normal que loolu feeñ ci. c'est normal en plus DJ Youssou no on travaille ensemble xam nga donc yeah c'était aussi normal tamit ñu bàyyi ko mu exprimer wu yeah yeah that was niveau vraiment lii mooy niveau quoi. Taji. yeah Taji Taji sa sound bi amul. <laughs> merci beaucoup amul très nice vraiment. bro man je parle je n'ai plus les mots quoi. si <laughs> si album bi si represent bi. si tout de yeah. partout de culture bi tu si xam nga essence bi quoi dafa am essence quoi yeah. tu vois ce que vraiment je te dis ah yeah. gars sa album bi man je peux le dire feedback bi yàlla na si ko xoolal maanaam projet bi ah bro sa nga yëpp def ko ay clip bro gars ñu war gis affaire yi quoi <laughs> dégg dégg maa nekk ama tene new bro loolu <laughs> <laughs> def da nga bëgg def jooy ko yow Ah, non non non def affaire yi soit da ngay da matal ñaari moom ñaari man pour man foog nga clipé ko quoi muy niveau foog mu am clip you know ah, hmm. ak um, kii nu mu tudd Abdou ak Bruce Lee ñetti yooyu foog mu am clip selon moi. ndeysaan ah, ah ok. yeah ok donc bi that's a high level niveau bi def na si affaire bu nice DJ Yu moom wane na ne ko comme quoi que mi grow up ci ci ci DJing quoi vraiment. non dof la dof la Yu dof la Yu moom dof la tu vois. shout DJ Yu shout out to Papa nga xamante ni est-ce que xam nga niveau moom lañ mujjee enregistré ah. Mm-hmm. niveau mm-hmm. niveau tamit wala quoi histoire boppam la parce que. boo xoolee am nañ am nañ am nañ sound yëpp ba mu des euh, ba mu des niveau mais après. Euh, tu vois le producteur Mr Dev tu vois il a dit que ni voilà moom xalaatam mm. et doon que ni am na lu ci des quoi et puis peut-être Sirtam aussi fekk si woon na ko ci loolu que ni il reste quelque chose quoi am na benn affaire bu des benn kickage wala lyricalement un truc xam nga boo xamante ni voilà quoi. xam nga ñu ne ma saa il nga doole beneen il nga doole benn affaire quoi. waaw donc ci mën nañ ci benn ci biir semaine nu sorte bi la la lañ job ni ma job ni ma jaar ni studio rek des voix papa ni ko jobalal saa un truc quoi waxtaan nañ ci lan lay doon et puis voilà papa laay ma ni ko man je veux un truc simple mais sombre voilà quoi expliquer ko détails yi bu ma playé niveau ma ne ko lii lañ soxla bii la quoi tu vois euh, noonu la départ ma jël prod bi bind si jël si sama temps bien vrai que j'avais plus assez de temps donc voilà bind affaire yi vite fait et voilà ça a ce que ça a finalement je pense euh, bokk na ci son yi ëpp retour quoi son yi gars yi gën a apprécier donc euh, voilà ñu euh, ngi noonu. that's what's up that's what's up après pro nga ñëwaat Bruce Lee foofu nga ñëwaat indi sa jàpp scene bi you know what I'm xam nga. Hmm. ak beneen ndaanaan mais bro. ma hmm. laaj la question boobu noonu c'est quoi le mm. goût faire un faire benn featuring ak BMJ jamono biñ toll nii. BMJ déjà moom BMJ c'est un c'est très bon tu vois c'est très bon rappeur c'est un très très très bon rappeur ba pare euh, voilà quoi neexal liggéeyal tamit quoi dang da lay jox envie nga liggéey ak moom parce qu'il est talentueux xam nga et puis man moom yàgg nañ filante yàgg na quoi xëy na peut-être euh, ñu ngi koy soog yàlla mi ngi koy soog a tudd nii et tout mais yàgg nañoo filante quoi je pense depuis ay flow up bi ñu njëkk a gisante c'était flow up all stars ci lañ gisante euh, ñu tase woon Vibe rajo xaw ma 2S. je pense 2S. après ñu charaatante nii et tout échange numéro ci même jour bi fekk moom tam mi ngi woon ci promo concert am bi. ma uh-huh. di il m'invite quoi xam nga ma ne ko ok donc euh, voilà noonu la link bi mm-hmm. dawee. et chaque fois on voulait faire quelque chose donc euh, normal tamit projet bi tamit ñu ni woon on avait besoin d'un kicker c'était on était parti entre Mr Cash euh, BMJ ak euh, waaw waaw waaw c'est deux ah c'est deux mm-hmm. ok so euh, Mr je pense euh, dama ko xaw a yéex a je sais plus okay. ce qui après voilà Euh, voilà on a choisi BMG après voilà mon message ko vite fait insta munuma seen ma bagage bi ma seen ko ko et voilà on s'est donné rendez chez lui ñu toog ci këram yendu añ naan caayen joobaale sound bi xam nga après voilà. encore encore le kickage de Pape Laye. dafa leer Pape Laye moo waaw moo job prod bi. waaw <coughs> BMG moo ko mm-hmm. donc mm-hmm. euh, voilà. so mi ngi noonu mais c'est un très bon rappeur boo xamante ni très simple aussi hein très open. Yeah, euh, mu nekk une personne vraiment que je que j'admire donc euh, yeah. voilà ngi noonu. yeah amoon nañ ko fii si xool Real Talk vraiment c'était nice quoi. Kaane Kaane positif def na fi wana révélé na fi ay ay ay euh, ay qualité yu bëri vraiment yoo xam te on apprécie quoi. et on voit mm-hmm. projet yi génn si tan bi yëpp xam nga da ci gis bi MJ quoi Indas What's Up. non c'est le c'est l'artiste de l'année ah. c'est l'artiste de l'année waaw street crédibilité bi dafa feeñ c'est l'artiste de l'année xam nga genre il a il et puis euh, voilà. Yeah, parce que featuring et featuring yëpp gisuma ci benn bu mu flop yëpp laa gis. nice yëpp il a assuré assuré même plus li bi nice ah nice. Ed City Ed City. Saliou bi Saliou Golden laa ko la wala du moom. non maître Golden la maître Golden. que ça veut di euh, maître Golden parce que daanaka voilà Golden. golden boobu tamit Thiès la dëkk bii Saliou multi voice la Saliou Bousso ah. boo xoolee genre moom mën nañ ni golden euh, voilà ay début am tamit ci kanamu Saliou la quoi et je pense c'est des cousins aussi donc euh, voilà hmm. mais comme je dis rek Saliou Bousso pour moi après Youssou Ndour c'est le meilleur chanteur du Sénégal est-ce que et j'assume quoi man man damay wax parce que xam naa li may wax hmm. parce que c'est la famille aussi c'est depuis no début man ak moom yëpp donc euh, dama xam quoi. dama xam la personne waaw la Mbadou Mbadou c'est la famille rek moo tax nga ne moom après. non non non non parce que dama xam potentiel wala boog jot naa si xam as tuut par rapport li nit xamul. Mhm. li mu am sañ-sañu def ci musique li mu fi muy mën a yóbbu baatam li mu mën a way. en fait mhm. il sait tout faire avec la musique macha allah avec sa voix. Mhm. du du xam nga le nom multi parce qu'effectivement il peut te faire du Ndiaga Mbaye tey bu subaa mu defaral la Akon gannaaw suba mu defaral la James Brown naawaati suba mu wayal la Viviane sax boo bëggee mu loolu talent don de Dieu la quoi. nga true story euh, voilà mm. donc voilà côté boobu laay waxee quoi. et puis euh, je pense dinañ dinañ dinañ xam li may wax fii ak ci kanam incha allah. ok yaa ngi préparé yeneen affaire mais lan la mu ngi mu ngi chambre Saliou non mi ngi ci boppam mi ngi ci ay business boppam. waaw me yéen da ngeen genre kii nag da ngeen war a sign genre artiste si xam nga wax leen Daouda Mar comme que moom si. mais oh, te you know. xam nga moom xam nga. xam nga xam nga chambre neuf. chambre chambre neuf spirit la quoi. xam nga chambre neuf du ñii eh, nii nii nii chambre neuf du du leneen lu spirit du leneen lu dul concept du philosophie la quoi en fait neuf c'est c'est Dev, c'est Big Dad, c'est Taiji, c'est Salou, c'est Crazy, c'est la famille bi nga xamante ne ñoo fa nekk depuis depuis deux mille deux mille deux mille onze di ko di ko di ko teewal ba léegi donc euh, voilà que nga nekk fii que nga fi def say sound que defoo fi say sound que whatever lu mu mën a doon mais la famille quoi loolu mooy Chambre Neuf mënuñ ci génne Saliou nag mënuñ ci génne Kamou mënuñ ci génne phonétique mënuñ ci génne avocat mënuñ ci génne. MDP mm. ainsi de suite ainsi de suite donc voilà. mais je ah, pense koo xamante ne ku ñu war a ku ñu war a teg loxo la a. foofu laay waxee quoi foofu laay waxee quoi dafa war a dafa war a dafa war a dafa war a ñëw quoi. and euh, après si nga ñëw sa mm, euh, buguru. Mm-hmm. moo tax affaire daf ma c'est que affaire bi daf ma frappé woon quoi <laughs> comprendre nga mm-hmm. li xam nga. mais comme que léegi expliqué ma ko and uh, a nice joint too. That's a nice joint. Uh, uh eh, waajur bro. Mm-hmm. def nga sound bu classique. sound bu neex a déglu. sound boo xam te ne ne ça nous xam nga. xam nga sunu parents yi ni ñu ni éducation yi ñu jox bro booy boo gisee léegi maanaam sunu town yenn yenn valeur yi mu jéem a inculquer ak yi nga wax ci sound bi nga xam ne c'est diamétralement opposé yow qu'est-ce que ça te fait bon waaw c'est c'est dommage ah c'est dommage malheureux après li muy fësal day bëri ah li muy fësal day bëri mooy que ni beaucoup de choses ont changer xam nga entre-temps parce que dañu nekk xëy na jamono joo xamante ni euh, parce que éducation en fait li muy laaj yëpp peut-être le gars yi amatul quoi moyen yi muy laaj yëpp parce que day laaj temps mais day laaj moyen quoi day laaj euh, day laaj beaucoup de moyens day laaj volonté quoi day laaj amour day laaj euh, xam nga et puis xëy na yu bëri instant bi nii ñi waajur yi ñu ci bëri amuñu amuñu temps boobu wala xëy na xamuñu sax quoi comment comment si comment prendre donc euh, peut-être moo waral moo waral yenn yu bëri quoi donc voilà. Euh, wala sinon tamit ñu bëri ñu ngi am nañ ay doom am nañ famille mais xeet nañ peut-être ñoom seen wax wala seen jëf wala ñoom suivi bi nga xamante ni war nañ ko am ci seen i euh, ci seen i ci seen njaboot tu vois parce que affaire bi day laaj day laaj vraiment suivi quoi boo amee njaboot nga am ay doom day laaj suivi au plus près que ça soit ci xam-xam que ça soit ci comportement que ça soit ci euh, environnement bi muy fréquenté yooyu noonu yëpp tu vois dafay dafay mm-hmm. dafay dafay am solo quoi mais boo juree boo amee sa doom nga bàyyi koog boppam bàyyi koog mbedd bi te mbedd bi mm-hmm. peut-être mooy air city quoi tu vois nga bàyyi koog voilà c'est xam nga c'est c'est c'est dommage c'est dommage conséquences yi ci mën a am ak yëpp donc euh, voilà pour mën euh, après nag bu ñu amee nag amee chance wu am ay parents yoo xamante ni teg nañ ñu ci yoon bu baax euh, dëkkal ñu ci benn hmm. environnement boo xamante ni voilà def nañ hmm. seen kéem kattan ba nga xamante ni pour ñu baax donc c'était tout à fait normal tamit ñu rendre leen hommage quoi. normal ah, true story that's a nice join a nice sound vraiment sound bu sound bu extraordinaire c'est bien fait. Mm-hmm. vraiment ton projet ton projet absolument y a absolument rien à dire lépp carré. lépp li nga am la nga war a bien réfléchi xam nga écriture yi ñu ngi fi xam nga continue bi xam nga das das vraiment mais bro damn um, bro man <laughs> sa sound bi dama ko déglu njàmpe ñax njàmpe ñax waaw dama ko déglu dama ko quoi mais affaire dafa dafa am fu ma yóbbu quoi la la yóbbu um, <laughs> su ma demaan ba ma nekkee booy bu ndaw quoi su ma demaan vacances àll dëkk ba quoi Kajoor xam nga man waa Kajoor laa ndànd laa dëkk ba. xam nga su ma demee buñ ma booleeg mindaan mi pour mu sang ma mindaan mi su ma bëggee feteem ba njàmpe ñax lay jël quoi te xam na ne man bëgguma njàmpe ñax <laughs> su booy temps laa man njàmpe nooy laa xam quoi. <laughs> Ah. <laughs> est-ce que éponge nga xam quoi eh, éponge. non pas éponge sax mais njàmpe yi nooyi quoi mais man xam nga <laughs> booy njàmpe ñax booy fis booy njàmpe juróom bi booy booy njàmpe booy fis booy yooyu mbombu kii yooyu booy mbombu cin booy mbombu yooyu booy. booy kooku moom lay jël rek ko ak saabu bi rek booy commencé ma fete booy rek may break dance si biir douche bi booy. et tu sais quoi et tu sais quoi tu vois c'est le mais mais mais mais déggoo li ma la wax bro bro man hip hop dama koy man bro hip dama koy dund de man kafu ma si réew ma si bro dama koy dama koy dund xoolal foofu xoolal la ma yóbbu direct ma fàttali ko maanaam buñu may di ma mbomb di ma téye di ma mbomb ak njàmpe ñax bi quoi dama toog quoi dafa leer dafa leer dafa leer donc voilà ñu <laughs> ngi yeah. That's a nice one, bro. tamit xam nga jaay tamit mënu ci ñàkk quoi tu vois. jaay rek mënu ci ñàkk euh, def son ak Big Daddy waga bu mel ni Big Daddy wala jaay rek bu mel ni euh, taal bi tamit c'est tout à fait normal que titre bi tamit nekk loo xamante ne day day différent day jaay rek comprendre donc ngi euh, noonu nice inspi bro nice inspiration. <laughs> nice inspiration vraiment maa ngi shout out gars di shout Big Daddy X xam nga ci di ko di ko remercier ci couple bu nice ci son bi di shout out bi ci couple bu nice. taal lala da nga lala nu mu demee noonu yow ak Big Daddy X ak taal bi dafa am benn affaire bu doon doon maanaam lala. cousinage bi nii ngeen doon wane wala nu mu demee noonu la ngeen doon ñëw en force ok loolu mënu ci ñàkk yooyu noonu yëpp la wane ni tamit ni mbooloo mooy doole ah wane ni il faut qu'on il faut faut unir les forces quoi tu vois xam nga il faut c'est la famille que ni ku ci nekk yaa ngi sa yoon di def li ngay def mais n'empêche mën nañ defandoo tamit le combat reste le même quoi mooy c'est pour Thiès yeah that's positive that's positive that's positive ñun ñett nice move mm-hmm. foo ci génn boo demee Dakar wala boo demee out of Sénégal sax mm-hmm. tu vas dire Thiès après nga ne Sénégal tu vois yeah def ngeen affaire de Sénégal après da nga naan donc c'est tout à normal que ñu représente tamit quoi nice la force la force la force elle est là quoi vraiment nice nice affaire bu top nice nice ñax moom that's a nice joint et puis c'est bien inspiré quoi j'aime ça mm. j'aime ça no complexe quoi nice yeah for real nice. for real bro bi my joint my joint too yeah <laughs> yeah sound bi dafa nice bro moom laa wax moom lalo wax nga clipé quoi ah. moom Euh, Bruce Lee ak Niveau. yeah ak Niveau ah. yeah yeah Abdou Dassep rek benn yoon. mais bro non cli non clip lépp moom xam naa mënoo ko temps da nga yor njaboot ba li def. non mais eh, parce que ñàmpe eh, ñax déjà dañ ko ñàmpe ñax ñii dañ ko war a dañ ko taal bi moo tax clip buñ ko parce que dafa voyagé. ok euh, Bruce li euh, Bruce Lee réalisateur bi moo voyagé moo tax clip buñ ko ma xool niveau niveau on a commencé déjà. Mm-hmm. donc euh, commencé nañ shoot bi peut-être dañ koy àggali. Euh, ak ban et surtout on va on va on va shooter ok euh, ah mais dara kon boole ci boo boo ci mënee boo ci mënee ñambaas oh, Abdou rek boole ci Abdou bi kon. bu góor tam dañ je pense vidéo yëpp la ah. Ah. su. su su xaw ma ni koy waxee de dev xam nga dev tamit. mooy. <laughs> ok xam nga day jooy rek nga xam na ne dañuy def loolu quoi. waaw fii moom xam nga nag fii moom embarras am quoi parce que. waaw sans woon ni moom lépp carré quoi mais Abdou tamit c'est level beneen beneen la vraiment vraiment vraiment xam nga maa lay ah, di la wax ne que concept bi nice na vraiment xam nga bégee bégee Abbas Abbas Abbas aussi maa ngi koy maa ngi koy bégee bu baax di ko yeah euh, il m'a il l'honneur de voilà quoi faire des témoignages aussi euh, qui yeah yeah true story ak euh, Pape Sidi Fall Pape Sidi Fall il l'a appelé en direct donc ñu échanger ñu noonu c'était vraiment un moment vraiment mm. bu nice quoi xam nga di wax légende bu mel noonu nga xamante ne bokk na ci ñi ma ci ñi inspiré et tout moo saraawut ko tamit ci sound bi ah, ci son wu olive bi mooy jógee fu baax ah, dem fu bon loolu tamit son wu Abbas Abbas la c'était une aussi de voilà quoi jël son boobu xam nga approfondir ko indi ko ci beneen contexte et tout et puis voilà ça a donné ce a donné donc voilà je euh, ma nice man nice man moom tu m'as tu vraiment si mm. projet bi. Euh, vraiment gën nga xam nga yow yow xam nga quoi maak yow yàgg nañ waxtaan say affaire si xam naa sa idéologie bu baax xam naa ni ngay. Mm. you think xam nga. xam naa mm. sa ses principes tu ak tes valeurs xam nga yëpp xam naa ko di la wax euh, keep it up bro. Euh, mm-hmm. merci de nous avoir régalé ce projet ak ci concept bi nga ko dugal merci d'avoir xam nga rendu hommage à l'hip hop bi nga xam te ne moo ñuy mm-hmm. dundal ñun peut-être tu and uh, mm-hmm. réflexion yi si am yëpp c'est carré apprécier on a apprécié quoi léegi balaa ñuy jël sa balaa ñu la fi téye muy gën a dama la bàyyi gars yi posé la ay deux trois questions après ñu yeewee la quoi maa nekk. let's go. daa jëf waay kontaan si yow. am na am na ku ma gaañ ci commentaire yi am na ku ma gaañ ci commentaire yi. mun ah, seen ceinture orange. xaw ma. <laughs> gars yi dañ dee fii lu ne ngay dégg. <laughs> lu bu fekkee yaa ngi fi eh. vas-y. waa salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waa tay ji j'espère yaa ngi si jàmm. waa ñu ngi am tawfeex bu wér kay. get nañ projet bi genre. vraiment nice projet ah man bokk na si projet yu ma gën a neex. dernièrement jërëjëf au fait man ñaari question la amoon mooy mm-hmm. par rapport ak yow ak sa clash beeg El Jazz normalement mm-hmm. man genre vu que ni ngeen jege woon Bamba normalement ci man waru woon am clash quoi loolu laa foog loolu laa jàpp waru woon mm-hmm. am clash du nan la demee ba ba ba ba ngeen commencé clashante loolu mooy sama première question deuxième question je crois par rapport ak Dip damay gis parfois avant avant sa projet bi di génn ah, gis naa am ngeen ay link je sais pas si da nga prévoir def ak moom son si sa mhm. projet si sa prochain projet wala moom prochain projet genre nan lay demee koi mhm. ñaari question la bon waa concernant benn bi mooy euh, El Jazz euh, man pour man El Jazz bu newoon xaritu Daouda Maar sax yaa ngi dégg muy fréquenté Daouda Maar bu defee loo xamante ne ànduma ci mu nekk en tant que rappeur en tant qu'artiste. waaw dev du ma tere du ma tere man ma def son def son clash wala pic et jazz parce qu'on parle de hip hop tu vois un fait hip hop là quoi c'est on parle de rap music mm -hmm. tu donc pour man loolu musulul nekk da ngay xool par exemple Dr Dre moo yoroon ci labelam Aftermath 50 Cent fa la newoon euh, The Game fa la newoon et pourtant voilà ñoom ñëpp ay. Euh, Dr Dre moo doon seen mentor et terewul bi ñuy tollee si clash bu ñu tollee ci xam nga faire la paix dañu faire la paix parce que c'est c'est du hip hop tu vois. Mm. et que voilà ci contexte boobu rek peut-être Bamba tamit il a compris yooyu noonu yëpp moo tax musuñ ci sax échangement ak yow musuñ ci woon échangement ak moom ci loolu et tout. et que pareil pour Six tamit nga xamante ne sama grand la maa koy shout out musuñu am euh, musuñu am benn discussion wala musu si déranger kenn quoi parce que comprendre nañ ñun ñëpp que ni it's all hip hop mais du y a rien de perso perso perso wala y rien de comprendre de euh, y a pas d'animosité en fait. Okay. Tant que ça reste dans le cadre du hip hop euh, voilà quoi c'est c'est faisable c'est faisable donc c'était juste ça. ok, okay. concernant Dip euh, oui effectivement on on doit faire quelque chose peut-être lu ñu waroon def la sax bu yàgg parce que Dip Euh, premier jour bi ñuy gisante j'étais allé le voir ah avec Dev ma àndoon ak Dev dem dem gàllem xam mm-hmm. euh, voilà ñu déglu ay pro déglu ay projet am ay futur ay yenn sound am yooyu noonu et tout waxtaan ci live waxtaan ci lépp mu nekk un gars très bien tamit quoi humainement mm-hmm. il est voilà quoi il est bien donc. Euh, et le feeling tamit passé tamit nice quoi nice sans sans kii donc voilà il m'a proposé des choses et puis a échangé et wa waa kale nañ pour def dara koi après temps nag problème temps am na problème mu xam nga seeyoon naa fii moom tamit mi ngi woon ci ay baayam et tout jàppal baay bëri woon na yu yoo xamante ne yu doon gàllankooral euh, suñu collab mais euh, je pense dans l'avenir di ngeen di ngeen gis quoi. di ngeen gis et j'espère bien que lu hip hop soxla la et puis j'espère bien que luy nice lay doon quoi allah. merci beaucoup ma bàyyi la ak gars yi ñu continuer. pour beaucoup papa. pour te dire Bamba ñun ñu ngi woon ci comment rentabiliser ñun li ñu am quoi musuñu ci am réero wala affaire yooyu. Bamba maa ngi koy bind léegi jug na en deux mille dix neuf mois de novembre dem Sorano. mu ne ma il a pris une date pour taay sin donc moi je dois faire ceci ceci ceci mu jàppaat sama loxo yóbbu ma grand théâtre boole ma ñu fa nekk pour bu Sorano bi pare peut-être six mois après on fait une date là donc bam c'est en fait quelqu'un qui était vraiment vraiment dedans quoi. Mmh. bon loolu laa bëggoon euh, loolu laa bëggoon rajouter peut-être préciser benn euh, Big Daddy c'est c'est c'est l'artisan majeur du comeback de Taï ji quoi bi daal di daf si nekk di handle di handle ba def benn benn concert le lendemain je suis venu le féliciter gars yi ko féliciter mu ne ma nice na mais il manque Taï ji lu wax mu wax loola Taï ji il faut qu'on ñu def li ñu war a def quoi parce que un artiste comme ça daf fi war a nekk mu dox si lu mu war a dox gars yi ñëpp ñëwaat ko après moom tamit euh, voilà gars yi motivé waat ko mu ñëw def lu mu war a def donc lui vraiment mooy li ñu doon wax keroog rek humainement musuma gis nit bu nit nit bu mel noonu quoi lui il est à à à vraiment bon je pense que c'est tout ah sauf que bëggoon naa dugal ñoom Sidi ay ay coup rek mais grawul quoi c'est bon. dafa am euh, dafa am am sama benn last question quoi. xam naa ah. na la parce que yaa ngi déglu émission so euh, mm-hmm. last question bi mooy. dafa am benn baar bu percutant si game bi mooy baaru Zo Talla bi rap Galsen quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent de temps baar boobu ba nga ko jëkkee dégg gars yi noonu la def ak noo gisee baar boobu. <laughs> waaw mais mooy li mu lay wax rek. non bul baaral de eh, ma bu fi indi ay affaire de je suis mari eh. maintenant xam nga père de famille. waaye man mari déggoo li mu la wax. <laughs> waaw musul jeex. waaw tamarinage bi musul jeex loolu waaw. Euh, bon ben écoute Omzo il est toujours dans la provocation hein. il est on, on le peut-être moom day bëgg neexal à chaque fois quoi donc parce que yooyu noonu. artiste bu ko dégg tu vois euh, force di nga si gis sa bopp waaw force di nga si gis sa bopp bon boo boole sa bopp ci quatre vingt dix neuf yi heureusement man boole wu ma sama bopp ci ci quatre vingt dix neuf pour cent et peut être partie des un pour cent peut être c'est voilà donc euh, euh, voilà naturellement comme tout le monde rek bi ma ko bi ma ko déglu après je me suis voilà c'était comme tout ce qui bouge comme li may faral di wax rek. gars yi après dañ naan woy taa ji yow top ngay topp Omzo rek xam nga lu Zo génne nga topp ci alors que le gars il sort des il nga il xam nga il clash tout le il insulte tout le sax on peut dire tu vois après quand tu sors un truc surtout gars yi bu ñu wala ils s'attendaient pas à un tel niveau. ñu ne mm-hmm. woy da ngay yow sa carrière yëpp da ko jox Zo wala ay affaire demee alors que ki ñuy waxal moom ci boppam sax il passe tout son temps aussi à voilà. à, à regarder de l'autre côté quoi à de l'autre côté quoi de gauche à droite donc euh, voilà mm. gars yi tamit nañuy nañuy honnête rek suñu suñu bi xam nga nañuy nañuy mm-hmm. honnête mm-hmm. Mm-hmm. sa rappeur bu génnee sound wax lu muy wax bu gars yi tontoo wala bu ay représenté amee bul bul ci gis sa bopp wala bul wax ni non yow kii bu génnewul doo génne wala kii kii mooy sa life kii mooy ki nga bëgg def sa carrière non faut qu'on soit objectif sa rappeur bu tooñee buñ ko chefaaye accepté ne moo tooñ ñu si fay ko nga dem defarwaat nga génnewaat waaw so voilà ñu ngi noonu ah, man aw ma ci aw ma ci woon aw ma sax xalaat quoi. non li nga si développé euh, li nga si développé moom moom c'est intéressant quoi ah. li nga si développé moom c'est très intéressant ko je bi pas kon doo tamarin da ngay ba am seet. man wala parce que wala wala parce que wala parce que waxu en chinois su ko waxoon en chinois gis sa bopp. non tamarinage bi musul jeex. mais tamit beneen affaire dafa am man tamit munu ma fi nekk tamit sama life. <laughs> ku rek nga ne. <laughs> non non munul nekk. parce que tamit il faut que tamit on porte nos yëkku comme ni ñuy wax. portons nos yëkku tu vois. tamit yow yow doo doo baral ak man doo jàkkaarloo ak man après en même temps à chaque fois que tu sors un un truc xam nga da ngay da ngay bàyyi ay affaires yu sew sewaan ay détails xam nga voilà quoi comme si yow da nga bëgg man ma jaayal la sa projet wala loolu non. newatuma ci baa yooyu noonu Omzo quand il est ñu battle ñu dem Eric Favre wala ñu whatever wala bu paree ñu baral ñu back to back je suis am here ak beneen artiste bu mu mënti doon tu vois que je veux dire instant bi ci loolu laa nekk. ok mais ñëwatuma ci non ay way kii dégg nga lu wax fii def la pic fii non doxatuma ci affaire yooyu noonu j'ai plus le temps. ok ok yaa ngi préparé TRG bi. yeah pare ah. pare nañ mm. donc euh, voilà ci yooyu noonu yëpp sax mm. ci laa nekkoon sax ci rendez-vous yooyu noonu yëpp laa nekkoon ba taxoon ma xawoon tardé tey donc euh, voilà mm. mais bro en tant que euh, patriote ah en tant que patriote naa yaa ngi liir enjeu town bi mm-hmm. hmm, yaa ngi liir town bi mm-hmm. game bi ni muy demee doo doo doo ngaaka you, like mm-hmm. fiti so your business you know how is business going on how is business is work yow instant bi situation bi ak polémique bi si am bàyyi nga si xel. ban polémique noonu. jee show of the year moo fi nekkoon di teewal. tu vois xam nga expliqué. état bi wañaar loxo ki ko doon def tu vois jaay ko doole tu vois. non seulement non seulement boobu wañaar je veux dire ils sont interdit le show of the year voilà. ce qui est tout à fait injuste. voilà. ce qui voilà léegi voilà léegi après ñu gis ne que comme quoi que gars bi maanaam ci ay propos bu peut-être patriotisme peut-être wala ni mu ànd ak di fayat yenn affaires yi tu ñu gis ne que <clears throat> maanaam gars bi instant mi ci jël bi quoi tu vois c'est que un rapport comme kii ñu gis ne par mm. exemple show of the year dee na gars yi di wax polémique am benn polémique bu judd ci suuf ne que comme quoi dafa am beneen gars bu ñëw tu teg benn TRG tu en faveur de l'État tu en faveur des tu vois de je sais pas moi comment l'appeler noonu koy waxatee. en faveur de en faveur de l'État. Um, yeah en faveur de mhm. l'État en faveur de de benn gaan boo xam te ne nii tu vois il est tout près du ministre de la jeunesse tu vois ce que je veux dire et moo ñëw teg show am tu vois après mu ñëw fay gars yi contrat ñu liggéey. léegi au fond au fond quoi waxuma la yow nga jël sa mic dem taxaw yuuxu xam nga politique politique mais. game bi daw si suuf quoi est-ce que yow yëg nga ko est-ce que dégg nga ci bon man déjà man euh, comme li ngay wax ni yu bëri nii man maîtriser wu ko déjà. donc euh, duma ma ci mën a parce que mënu ma wax ni euh, li ma gis li visible par exemple on parle de Tafala li visible mooy il a le soutien par exemple de l'État il a le soutien du ministère de de la jeunesse de la jeunesse ah waaw ah man dama jàpp ni loolu comme euh, comme tout le wala comme la majeure partie bu ñuy def ay concert wala surtout yenn concert yi toll yenn niveau yi c'est normal bu ñuy liggéey ak ministre de la jeunesse tu vois wala ñuy liggéey wala ñuy recevoir un fonds venant venant de l'État par exemple les fonds des fonds des cultures urbaines et cetera et cetera vois moi personellement aucun aucun mal à ce que un Daouda Mar wala un Amadou Fall Ba wala même un Hoemaker allait prendre un fonds fonds boo xamante ni c'est argent nous du du sarax du yalwaan du politique du dara fonds la boo xamante ni sunu xaalis en fait sunu impôt sunuy cotisation dañ jël répartir ko ci économie bi ci jeunesse bi ci culture bi ci ainsi de suite ainsi de suite mu nekk lu tout à fait légitime loo xamante ni ku koy ku koy jël pour def ci sa sa def ci sa et encore une fois pas des aides du ay ndimbal sunu xaalis la. yaa ngi dégg. donc pour man loolu. I got you mais mais mais est-ce que sulu est-ce que gars yi est-ce que pardon est que gars yi bi est que du timing bi moo tax ñu si ñu ko ñuy wax quoi. timing bi c'est-à-dire. timing bi c'est-à-dire moo ni commencé na génn au fin des élections tu vois des choses yoo xam te ne nañ ko fay ci game bi depuis ça fait des années teewul non xaaral xaaral xaaral des des choses yoo xam te ne nañ ko fay ci game bi des années teewul tu vois. Euh, xaalis bi partition de des des des données yi partition monnaie bi gars yi jot ci rapport yi mën ci am def seeni i activité nana nana dugg na fi génn fa ñu bàyyi ba fin temps fi nga xam ne carte gi jaxasoo na tu vois xam nga affaire yi door a structuré wu ñu rey ñenn ñi nga xam ne ñu ngi yoroon seen street ñu rey leen tu vois après ñëw indi ñeneen ñu nga xam ne dañ ñëw yor laa def mën di ko xëpp gars yi am na ñoo xam ne noonu ko jàppee ah. waaw. coup moi man man man man gis-gis boobu en fait aw aw aw ma ko si quoi man personnellement. ok. gis-gis boobu aw ma ko ci personnellement. ok c'est pas pour défendre euh, qui que ce soit parce que man. man sama yoon laa nekk sama samay baay la nekk. ok man man liggéey ak ministre de la jeunesse. liggéey ak Macky Sall ci boppam sax. terewul bu ma mm. waree génnewaat next version deux damay génnewaat next version deux. juste pour wax la rek comment je suis hmm. libre. tu es clairvoyant xam nga li ngay xam nga li ngay fayet lu mu doon quoi xam nga fi ngay teg sa tànk quoi. tu vois un peu. ok loolu am loolu empêché moo benn yoon ba bu ma waree toog ak Macky Sall wax ci lu jëm ci wàllum domaine bi tax man ma war a gisante ak moom dama koy def sans hésitation. ok et pareil pour le ministre de la jeunesse le ministre de la culture. waree u mu te doon. après nag comme li may wax rek du ma bëgg a avance ci yenn bagages yi parce que. waaw t'inquiète. je mhm. je veux je veux pas je veux pas avancer ci yoo xamante ni je maîtrise carrément. ok et du ma bëgg tamit ñu parce que xawma xawma kan mooy. Mhm. utiliser ay euh, problème personnel. Mhm. utiliser ay problème politique wala whatever ci yenn situation yi moo tax man. du ma mën ñëw di ci jox sama te xawma mm. source bi mooy TRG. c' projet boo xamante ni dama koy féliciter. Mhm, dama koy encourager. Mhm. parce que l' initiateur. maa ngi dégg ñu naan dóorkat la. xaw ma fu mhm. ci lan lañ ko teg. maa ngi dégg ñu naan tegkat bu waree ba luñ ci mën a doon xaw ma fa lan ko teg. li ma teg sama bët li ma gis. mooy gis naa ni il a fait TRG show acte donné des cachets de gros cachets aux rappeurs. il créer une résidence artistique. Mm-hmm. il a des choses yoo xamante ni dañu gis développement ak avancement wu hip hop. man loolu laa teg sama bët. ok all the bad things ak all the negative things loolu noonu teguma ci sama bët mënuma ci avance. all right. you show of the year. daal mm-hmm. na fi artiste bu nekk. Mm-hmm. seen bu mag la seen boo xamante ni c'est plus de peut-être je sais pas lu ëpp huit mille personnes wala dix mille personnes ñoo ñëw show of the year. c'est un truc man joué du benn du ñaar hmm, milieu la boo xamante ni ça te dalay taal quoi dalay aider ci sa carrière dalay booster tu vois un peu bi muy nit dof nekk koo xamante ni xeexal na réew mi xeexal na hip hop ci anam bu nekk ñu jàpp ko pour man pour man injustement quoi ñu jàpp ko par par ay histoire politique ay yooyu noonu et war a génn comprendre foo dafa war a nekkaat ci ay activité am dafa war a nekkaat ci ay show parce que c'est un artiste boo xamante ni askan bi dañ ko soxla yi dañ ko soxla tu vois donc euh, mu muy lu très loo xamante ni gisuma benn raison bu tax ki war a nekk ci ci ci ci ci loxo ci bi gisuma tamit ci benn raison bu tax ki la ñu war a festival am ñu dootu ko defati yooyu noonu tu anormal tu vois donc euh, man loolu daal lay am lu may wax ci euh, ci contexte bi mm-hmm. et que voilà espérons que yii nii yëpp tamit dina jaar jàll ñu nekkaat ci leneen quoi incha allah rabbi mm-hmm. Mm-hmm. so voilà di wax ni man personnellement maa ngi ci sama projet ci samay projet TRG daf ci bokk samay projet yeneen tournée yi ñëw daf ci bokk donc euh, voilà instant bi loolu moo nekk sama kanam le 23 mu nekk loo xamante ni je j'invite tout le monde ah ñi nekk ci groupe bi ci room bi nañ ñëw nañ seetaan si. parce que incha allah dinañ gis spectacle Fifty dinañ gis spectacle ye tay ji bi ñu namoon dinañ gis ak ay yeneen affaire yu bees quoi tu vois. Mm-hmm. jaajëf bro jaajëf merci beaucoup vraiment pour ce présent xam naa ne tu as fait beaucoup d'efforts pour lii mën a am tu vois ñu ngi lay si remercier bu baax and euh, di la wax euh, bonne continuation bro waxtaan bi daa was flex daa was nice vraiment ça ça a été beaucoup plus réfléchi et que gis naa ne aussi tamit euh, waxtaan nañ du benn du ñaar maa ngi sentir uh-huh. évolution bi sagesse bi tu vois ak euh, mhm. euh, euh, tranquillité bi ak clairvoyance si si si développement bi tu vois ba nga xam te rek ñu koy gën a yombalal sax waxtaan bi parce que tu vois la sais là où mhm. mettre tes et ça c'est très important tu vois di la shout bu bëri di la bàyyi nga def sa dernier mot après ñu yeewee la bro jëf ah, mais dernier mot bi mooy kontaan rek ah kontaan ci invitation bi kontaan ci gars yëpp ci teewlu bi et tout Euh, di wax ni raaroon naa seeyoon naa ci aléa yi mais loolu jeex na tu vois amatuma buntu bu may jaar pour seey donc je suis bel bien là naa ngi fii et puis euh, lii apéro la woon rek EP bi ni du du dara par rapport ak li ñuy xaar si kanam quoi incha allahu rabi parce que je suis en train de de développer l'album de ma vie en fait man noonu laa koy mën a considérer et que peut-être euh, fii laa koy waxee di ngeen comprendre loolu bu ñëwee ci loolu laa nekk di liggéey. Like, uh, yeah, Taiji, Taiji is here, Taiji is hip hop, Taiji xam nga donc voilà di kontaan bu baax ci ñëpp ah, di kontaan bu baax ci ñëpp di profiter ci occasion bi pour euh, bége dev quoi xam nga ci. gëm bu ma yàgg a gëm. xam nga parce que man mën naa ne des fois damay toll benn instant ma ne peut-être dev man moomu sax gën a gëm sam bopp. man li mm. muy gis ci man ak li mu gëm ci man peut-être gëmay moo sax sam donc. Euh, mm. Euh, remercier leen dev bu baax tamit quoi parce que peut-être euh, voilà leen ma ko ak euh, ñu nekk sama staff ñëpp à savoir papa laay xam nga surtam ci projet bi DJ yu Saliou Bousso BMJ waa Big Stal bi xam nga bi Amindow di manager instant bi xam nga mm. Tiger H mm. tout le monde quoi di bége gaa liggéey bi day soog a rek instant bi benn nouvelle génération ngay am ni rapport bu bees nga am ni donc voilà yeah for real yeah you know donc euh, yeah ñu ngi kontaan encore une fois ci intervenant yi tamit kontaan ñu doon teewle et tout di wax ni anytime ah maa ngi fi saa yoo leen ma soxlaa rek je suis donc yeah c'est le bégé rafet na bro rafet na eh, merci beaucoup vraiment si présence bi salut nous toute la famille xam nga bien de choses jaajëf bien des choses xam nga eh, bonne continuation pour pour next gars ñu ngi xaar bagage jaajëf jaajëf incha allah mais sama gars yi maa leen di ñaan ngeen may ma ay five more ji for my pour my nigga that was Taiji Scene on the real talk sama gars yi di leen remercier ci teewlu bi xam nga di remercier Tadji Sine si teew bi di ko wax mu ziaral ñu waa cees bu baax a baax a baax xam nga gars yi moom ñu ngi put Thiès on the map ko xam nga sama gars yi moo faayo moo gis pour ma nekk saa yi ci